asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu euh, mbokki jullit yi mbokki soppee ci yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi amaat nañu mbégte mu rëy ci jàkkaarloowaat ak seen jëmm yu tedd yi ci waxtaan yi nga xamante ni léeg-léeg dinañ koy am te li ko waral mooy sàkku ngërmande yàlla ak njëggalam ak. Euh, xéewalam ak teraangaam waaye tamit jotaay la yoo xamante ni dañ ci jàngatay suñu diine di ci jàngat sunu sunna yonent bi sallallahu waaye nag di ko transposer nag ci suñu dund xool xam-xam yi ñu am ci sunu diine ak jële ko ci alquran nan la mën a euh, yéwénale sunuy mbir mooy nan la mën a yéwale yéwénale sunu àdduna yéwénal sunu àllaaxira yàlla nañu yàlla boole dimbali jaahi seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam donc sant nañ yàlla bu baax dolli ci liñ ko santoon sant nañ yàlla bu baax dolli ci liñ ko santoon ci lépp lu ñu defal ci ay teraanga ki xéewal te xéewal yooyu bi ci gën a am solo mooy gindi gim ñu gindi gindi dugal ñu ci lislaam boole ñoo ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni tey alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw ba ñu waxtaanee jamono yi yépp comme waxtaan wi dafa guddoon moo taxoon ñu mayoon nit ñi tuuti temps ngir ñu mën a consommer bu baax déglu bu baax étudier bu baax waxtaan wi ñu defoon ci lu ñuy wax coronavirus yaa yaakaar naa ñun ñëpp keroog bi ñu ko dégloo gis nañ ci ay njariñ yoo xamante ni tey jii rek laa ci mujj waxtaan ak euh, Samba Tall Sène sunu goro sunu mbokk sunu soppe ci yàlla koo xamante ni bokk na sax ci ñi waral waxtaanu tey bii ndax yàgg na ma ci interpellé alhamdulilahi rabbil alamin euh, waaye tey jii rek lu nekk la ma ci wax ci njariñ ci dégg-dégg ci gis-gis rawatina nag Euh, xel mu dal mi ngi ci am ak dellu gi ñëpp dellu ci yàlla ginnaaw bu ñu déglee waxtaan wi ñu def ci coronavirus bi mu mel ni loolu farata la ndax am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay buur yàlla moom euh, nattu dikk ak ñàkk nattu dikk du tee yàllaam gi des fi rek alhamdulilahi rabbil alamin euh, ñoo ngi ñaanaat yàlla bu baax sama borom yéwénal mbir yi te leeral ko te barkeel ko تبارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دونك الحمد لله رب العالمين بين لين ماي دانكا اون سيمين غير نين مانا ديغلو وقتان وي ني جانغاتات كو تي سونو بلاتفورم ييب با تي يوتيوب بي كين كو نيك جوخيت سا خلات سا غيس غيس مو اوبي يينن فريتر دي ريفليكسيون تا الحمد لله نون لاني كو سيتلو ني بري ديف نان تي اي خلات ديف نان تي اي غيس غيس imaam yi def nañ ci ay xutba te loolu lu war la lu war la quelque soit la situation yi fi nag tabaarakallaahu ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu woyfal te sàmm ñu te musal ñu ñun ñëpp bi jaay sidna mohammadin sallallahu alayhi wa sallam su ko defee ragal naa fi mu ne nii li ñu bëgg a waxtaane lu yomba waxtaane la lu yomba waxtaane la parce que virus yi dafa bari am na ay virus économique ay virus politique ay virus Euh, informatique noonu la amee tamit des virus moro ou bien des virus sociaux alhamdulilahi rabbil alamin tey nag dafa am ñaari point yoo xamante ni moom la ñu bëggoon a partager ak yéen waxtaan ci ak yéen ndax lii corona di def mooy di faagaagal di rey loolu yooyu tamit ñoo ngay faagaagal di rey di yàq di dajji di di infiltrer di infecter di perturber di déranger euh, frange frange bi gën a fragile ci sunu jeunesse te sunu societé te gën caa am solo euh, mooy sunu jeunesse loolu yaakaar naa ñëpp xam nañ ko alhamdulilah tey loolu lañ bëggoon partagé ak yéen waxtaan ci ak yéen ñu seet euh, yooyu noonu yan xalaat lañ ci mën a am ak yan solution lañ ci mën a am mën a situer les responsabilité ak tamit mën a waxtaan incha allahu taala duñu yàlla dimbalee dinañu am euh, ay gan yoo xamante ni dinañu dugg incha allah. Euh, ku mel ni sunu euh, mbokk xaaj pap euh, masa luum incha masa luum Diop incha allah dina dugg su neexee yàlla ngir moom it participer ci waxtaan wi ngir ñun ñëpp ñu mën a jariñu de manière très scientifique très posée incha allahu taala balaa pap masa dugg incha allah ngeen may ñu ñu ñu ziar mbokk yi nga xamante ni yëpp ñoo ngi ci ligne bi. tabarakallah commencé ci sunu baay Seydi Abdoul Aziz Dia borom Marseille borom Aix-en-Provence mongook ak mbokk yi fa nekk yëpp ak njabootam yëpp ñoo ngi koy ziyaara bu baax a baax a baax duñ ko nuyoo nuyu nañ kilifa yi nekk ci page bi yëpp macha allah sunu soppe yëpp tabarakallah soxna Marie ak Tijani mu Cheikh Tijani Cheikh Tijani Faye tabarakallah Seydou Ousmane Diallo sunu soppe tabarakallah Serigne Cheikh Diop fii ci Bagnolet

tay dafa am ñaar yu ñu bëggoon waxtaane benn bi mooy euh, loolu la ñuy wax les jeux du hasard les jeux du hasard muy moom ñun Sénégal moom la wax carte euh, carte nag fi ne nii day bëgg a toj réew ma te euh, dafa am benn complicité xaw ma pas complicité sax mais moom daal lu doy waar la am na phénomène bu dangereux la Bon, xamanteni mo ngi mo ngi toj réew ma ngi tas ay kër indi violence moo ngi indi vol moo ngi indi indi vol avec violence Mon ngi indi sàcc moo ngi indi agression te carte la te ñi ciblé nekkatul bu njëkk koo gis mu yoroon PMU di joué la ay ay demi pas ñoo daan joué PMU léegi nag nañ école bu école privée bu garage yu Jakarta bu nekk garage oto bu nekk point de rencontre jeunes yu bu nekk rek fexe nañ ba def fa benn kiosque boo xamante ni xale yi fa la ñuy dem di jouer ñu ci bëri fi ne ni ñu accro nañu yàq nañu euh, jouer da leen di jaral sàcc da leen di jaral agressé da leen di jaral lépp lépp lépp dañ leen di jox sax seeni dépense ak seeni dépense yi kër ak dañ leen di yónnee ak lépp ñu jàdd yàq ko loolu yëpp incha allah dinañ ci ñëw waaye dafa am beneen phénomène boo xamante ni moo Euh, gën doy encore waaye day phénomène le danger mooy euh, ñu dañ team rek team team en anglais mooy groupe mooy équipe staff ah team fekk du team am na team signifier waaw te bu ci am groupe de danse de, de, de breakdance euh, groupe de fetch, groupe de euh, simëf loolu am loolu yéen xale yi ko mais amonna breakdance euh, simëf topando Michael Jackson dégg groupe de yooyu groupe groupe de groupe fural, groupe qui kii groupe bal baal yooyu moo amoon ci koñ yi waaw moo amoon ci mais dañoo dem ba ci biir groupe yooyu mel ni dafa fait fekk réerul dafa am une forme bu mu jël bu a dangereuse gën a graaw gën a mën a yàq nag moom lañ bëgg a waxtaane tey loolu ngi def ay ravage tey ay ay fléau ay ay ay phénomène ay scandale yu yu am ci réew mi fi mu présentement ah am ay émission télé yu am amna émission radio. yu am am buzz am nit ñi di ko seetaan di ko coow ba mu jur tey jii scandale loolu li ko jur ci ginnaaw moom la ñuy wax tiim tiim mooy tiim léegi nag euh, du ma fi nekk sax di di jéem a def sama explication am na sunu mbokk mu baax mu nekk ci ligne bi tabarakallaahu dafa nekkoon ci tukki waaye ba ma ko waxee liggéey bi la bàyyi léppam ñëw pour ñu ànd bokk liggéey bi moom laa bëgg mu dugg euh, jàppalante ak ñun ba xamal ñu lan mooy tiim. lan mooy euh, histoire u team ci Sénégal nan mooy organisation team ndax am nañ bureau ndax am nañ organisation lan mooy euh, aussi euh, seen fonctionnement comment il fonctionne ak ñoom nan la ñuy doxalee ci seen biir ndax par benn fan la ndax amul ñetti fan mooy li ñuy VSD ndax amul. Euh, luy luy am euh, semaine ak lan mooy euh, fête d'intégration ndax léegi changement yi am ci li ñuy wax li ñu daan wax ñun ouverture foyer léegi team yi nan lañ ko jëlee soppi ko loolu yëpp tey jii moom lañ bëgg a leeral ba wuy jur yi xam li xew am na lu loo xamante ni fi mu ne nii moo ngi rajaxi dëkk bi di toj dëkk bi di yàq jigéen ñi di yàq ndaw ñi di leen naanloo sàngara di leen toxloo yàmba di leen foloo di leen euh, defloo ay parties ay parties ay ay ay ay ay mais lépp lu bon loo xamante ni nit daan na dem ba jé nekk mu kallaf daan ko def tey jii élèves yu élèves yu ndaw ñoo koy def wala ñu nekk ci école privée yi kon euh, Haj euh, Massa Pape Massa. waaw ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi delloo ziar te téléphone bi dafa xaw a dafa xaw a faible tuuti nag wax dëgg yàlla. waaw ragal naa ragal naa ñoo ngi dégg xaaj euh, maxtar bu dee moo ngi dégg walla maar walla racine bu dee yéen a ngi dégg muy leer ngeen ngeen def ma signe allah. waaw.

di la yàlla mu fayal ndax toujours yi ngi ci euh, mission bi nga xamante ni yaa ngi wàññi ndaw ñi yaa ngi fexe waat ndaw ñi nu ñu jubee yaa ngi fexe ñëpp ñu tegoo ci yoonu siraatal mustaxab waaw ñu lay ñaanal yàlla yàlla saxal la fi yàlla bàyyi la fi waaw Massa ñaanal mbokk taal bi allo allo pap pap allo waaw ma ne son bi dafa xaw a faible xaa xaa xaaral ñu woolu ci beneen numéro mu tane waa nee nañ daf nee nañ dafa xaw a faible tuuti loolu la xaaj maxtaar wax xaa xaaral ñu woolu ci ci beneen ci beneen numéro il xam c'est fluide c'est bon mais alors le comme parce que euh, comme qualité téléphone yamuñu gën comme ça waaw ndeysaan xaaj Racine nee c'est bon <laughs> Racine Mar Owe Souleymane Owens Mayande Mayande c'est de Mohamed Abbas Mafatim Bey sama gaynde gi <laughs> alfaqir yaa xam njaay soxna mari mari an mari anta soxna ana kii sunu grande sœur la sunu mbokk la sunu cousine la ah, Cheikh Diop Bagnolé porte de Bagnolé Haj Momar Seck kook sunu jarbaat la tabarkala Seydou Ousmane Diallo Cheikh Kabou Njaay ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ziyaara bu baax a baax ñu ngi leen di ziyaara bu baax baax kenn ku ci nekk di leen ñaanal jàmm ak xéewal ak sutura ak teraanga bijaahi seydina wa nabina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam masa kon kii ba le son est redevenu faible c'est vrai mais ragal naa bii dina baax Massa. salaamaaleykum. ah kay. Ah, nee nañ de nee na ma ne ko nee nañ ñay du màggee ci rondal de <laughs> waaw léegi mbokk yi kon kon euh, damay damay jox directement xaaj Pape Massa Diop euh, mu duggal ñu ci waxtaan wi repondre ci suñu question yi nga xamante ni moom la ñu am jëmee ko ci loolu ñuy wax team. nga xamante do ko ci anglais équipe wala staff wala fekk ni yow suñ waxé team amna na lu muy wundu leneen lu muy junj lu dangereux lo xamanteni ñu qui ci xamuñu ko sa sax la la tagu ne la ci team la jëm fekk xamoo fam jëm euh kon euh, ñu jox euh, Pape Massa Pape Massa di nga question yi ñu posé won sank amna amna yuma ci dégg dañoo bëggoon nga defal ñu historique gu team. d'accord ak euh, seen euh, organisation. d'accord ak seen mode de fonctionnement. d'accord ak seen i euh, nan la ñuy organiser woo ci wàllu cotisation ci seen i réunion ci mhm. seen i doxalin ak exactement team duñ ko waxee lan la ñuy def ci biir partie parti yoy ñuy def ci une euh, piscine party yoy ñuy def sen yoy exactement lan lañ fay tox lan lañ fay nan lan lañ fay def ban liberté lañ fa am ak façon mo ci am bu euh, bu fan la wala VSD vendredi samedi dimanche wala semaine ak soirée d'intégration yi ak yoy yep mom lañ bëgg ñun ñëpp ñu am xam-xam bu ci yow la mbokk yépp di déglu incha allahu taala ku ci am question tamit mën nga ko bind en commentaire après Massa dina ko répondre incha allah bismillah incha allah bu ñu waxat Alhamdulillah. alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah donc dañuy sant yalla ba di jublu di jublu directement rek ci question yi wax ci li nga xamanteni mom lañ ci xam ndax daanaka guddi ba pare comme niko serigne bi waxee dañoo nekkon ci ay euh, yenn yëngatu de voyager waye bobu ñu def le pour def na sutura ñu ngi donc bi euh, ci historique historique team team mën wax ni euh, ben non bo nga sax dañ ko parfois CREW CREW. un ah, CREW. team euh, CREW. CREW waaw C R E W. américain yi mooy wa ñu naan équipe une wala staff genre mais ñun dañ ko ñun sénégalais yi dañ ko utiliser woon ak beneen méthode bo nga xamante ni moom lañ làkkee woon sa moom lañ sa codé woon suñuy langage pour yenn parents yi nit yi nga xamante ni duñu comprendre lan moo nekk dëgg-dëgg ci biir tim boobu noonu pour biyee woon ko li nga xamante ni moom lañ bëggoon def moo tax ñu daal di koy tuddee tim mm-hmm. mais c'est un peu un peu différent ak tim bi nga xamante ni moom la nit ñi di c'est différent même comme euh, équipe staff c'est trop différent yamut ak loolu parce que ñun façon biñ ko doon defee mooy que ni euh, c'était des groupes d'amis composés de euh, filles et de garçons ñu bëgg caaxaan donc xamuñu fan la ñuy jaarale seen caaxaan pour mu jàll léegi ñu daal di jël caaxaan yi daal di jël mbubu tiim solo lekk ko léegi yow wayjur bi doo comprendre lul buñ la tàggoo la ñoo ngi dem ñi tiim bi dangay ngay jàpp que ni rek suñu benn groupe la wala suñu benn staff la wala suñu benn équipe la doo comprendre alors que ni euh, tiim boobu dañ ko créer rien que pour euh, mën a def li nga xamante ni mooy suñu caaxaan ñu mën ko def aisément dara duñu yàqal Mm-hmm. boo demee am am nga sa ndigalu wayjur ndax nee nga ko maa ngi dem ci tim bi moom jàpp na ni ci lu baax nga jëm bàyyi na la nga dem donc boo demee dem nga ak sa conscience tranquille kenn contrôlé wu la kenn lijjantiwu la da ngay dem toog ba heure bu la neex nga def li ngay def après nga replier waat ñibbi waat mu jàpp ni ci lu baax nga nekkoon. Mm-hmm. est-ce que mën nga maa limal caaxaan yooyu bala ngaa avancer. d' accord caaxaan yooyu bokk na ci euh, fo la boo xamante ni góor ak jigéen ñi ñoo ciy jaxasoo te góor ak jigéen fu ñu jaxasoo we ñëpp xam nañ lafay xew bokk na ci daje boo nga xamante ni euh, danañ fa carte xaalis nekk na daje bu nga xamante ni danañ fay naan sàngara nekk na daje bu nga xamante ni dinañ fay tux ay chanvre indien nekk na daje boo nga xamante ni jaxasoo la entre góor ñi ak jigéen ñi lu nekk dafay xew. Mm-hmm. dina am musique. day am musique day am ay soirée dansante day am ay euh, piscine party comme li ñu ko doon waxee sànq day am ay weekend day am ay semaine yëpp da ciy am. Mm-hmm. voilà léegi nag piscine party yi mooy dangay ngay organiser benn journée bu nga xamante ni piscine ni dem yendu ji piscine bi ngay yendu ji doo ko loué piscine seulement. nekk ñëpp nekk exposé mais da ngay loué benn appartement bu nga xamante ni dafay am piscine ci kër gi mm-hmm. appartement fay am ay néeg am ay salon am ay studio am lépp appartement équipé lay doon hmm. léegi boo ñëwee ñi nga xamante ni dañoo bëgg sangu ñoom ñooy nekk ci piscine bi dem di sangu mais ñi nga xamante ni leneen moo leen indi lu sangu ñoom dañuy nekk ci biir néeg yi di def seeni intimité hmm. donc loolu loolu euh, bokk na ci liñ mën a définir tim tim Sénégal yi ñu yu yu ñu xewal Mm-hmm. Euh, bu ñu ñëwee tamit comme noonu rek ndaje la boo xamante ni dañ ciy profito mën cee tox li ñu bëgg a consommer yëpp nga xamante ni bu ñu demee ci kër gi duñ ko namaat tant que delluwaatuñu foofu dinañ mën a nekk foofu ba génn euh, ci famille bi te duñu suñu xel du dem ci cigarette suñu xel du dem ci leneen ak leneen ak leneen parce que dañuy consommer fee loo nga xamante ni satisfaire nañu doy nañ. Mm-hmm. dañ fay consommer alcool aussi dañ fay consommer chicha mën naa ni boisson euh, sucré lu néew la fay doon c'est très rare nga gis ko fa. yan alcool. Euh, am na ci ay euh, flat. dañ mhm. koy jël. Mhm. ak yenn xeetu alcool yu bari vin vin vin rouge alcool yu cher dañ ko fay dañ ko fay jaay parce que yow mi organiser tim bi loolu yëpp yow yaa koy organiser waale. comme genre événementiel da dangay dem jël un DJ boo xamante ni moom mooy ne gérer sonorisation bi nga dem jël benn restaurant bo nga xamante ni euh, moom mooy gérer euh, lekk bi naan bi. Mm-hmm. nga créer partenariat ak euh, boîte bi nga xamante ni fa ngay tëggee concert bi wala fa ngay tëggee piscine party bi wala fa ngay tëggee soirée dansante bi lu mu mënti doon. ñoom en partenariat ngay liggéey ak ñoom am na ci boîte de boîte de nuit yoo xamante ni ñoom boo ñëwee dañ lay mettre à ta disposition dañuy jox lépp li nga xamante ni dañ la koy soxla ñoom dañ la koy jox ñoom liñ lay wax ni la moom lañ ciy gagné en retour mooy consommation bi fexeel ba say euh, nit yi nga fi dugal ñu consommer ñoom consommer boobu lañ ciy gagné en retour moom la ñuy bénéficier wu. mooy sàngara si. muy sàngara si muy ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni ci biir lañ koy jaay dafay am mm-hmm. euh, comme si noonu tamit am na ñoo nga xamante ni en partenariat la ñuy liggéey ak yow dañuy ñëw ni la euh, pourcentage bi la ñuy am suñu liggéey pare ñooy moom soixante pour cent yow nga jël quarante pour cent mm-hmm. doo leen jox xaalis doo leen jox avance doo joxe dara ci pourcentage boobu ngay liggéey ak ñoom boo tëggee sa soirée ba mu jeex ngir nii ci table ji ñoom ñooy jaay bi ñooy jaay lépp. Mhm. lii lañ am ñoom ñu génnee ñu diviser ko jël seen pourcentage yow nga jël sa pourcentage daal di dem. Mhm. voilà côté côté cotisation bi aussi au début bu ñuy soog a créer team yi amagu benn tour bi amagu benn doole bi da def des cotisation semestriel ou bien des cotisations mensuelles mm-hmm. boo ko defee ba am benn fond bi léegi ci ngay créer événement yooyu noonu pour nga xamante ni mooy tax nga mën a booster sa caisse waaw ñaata ñaata ñaata lañ daan cotiser am na ci ñoo xamante ni dañ doon cotiser cinq mille francs par par mois amiga xam da ngay def 2000 francs par semaine amiga xamanteni da ngay def 30000 francs da ngay def 50000 francs parce que par par niveau lay doon ah bon ah, par niveau lay doon parce que bo duggé ci euh, genre soirée bi wala wala wala concert bi amna fo nga xamanteni moy partie VIP bi fofu la gëna euh, danse yépp li gëna bon yépp li ñu gëna interdit yépp fofu lay amé hmm léegi nag yow pour yow wan sa moroom ni la maa la gën a luxe maa la gën a nangam maa la gën a nangam pour wan xale bu jigéen bi ni yow da ngay buloo am xaalis wala yow ci saal yooyu ngay fexe rejoindre donc li ngay cotiser du yam keneen ki nekk ci euh, euh, nan laa ko mën a waxee euh, keneen ki nekk ci découverte bi maanaam. waaw ci niveau bi gën a tuuti rek. ci niveau bi gën a tuuti. Mhm. man ak moom duñu benn. Mhm. donc ci yooyu ngay satis ngay ngay convaincre xale yi jigéen ñi yow pour yow ñu mën laa rejoindre. Mhm. yow li nga cotisé du bokk ak keneen kële la mu cotisé ndax yow sa niveau ku fa ñëw dina fa fekk leneen ak leneen ak leneen loo xamante ni amul ci euh, niveau bu njëkk bi. donc yow da ngay def le tout pour am cotisation bi nga xamante ni kenn du ko cotiser yow yaay supérieur ñëpp. Mhm. da ngay def le tout bay marqué sa empreinte jéem a nekk président bi wala nekk secrétaire général bi ñi nga xamante ni dañuy ngànk groupe bi ndax décision yëpp après ci ñoom lay jóge bu boobaa yenn xale yi jigéen yëpp bu ñuy link ñooñu ni ñuy jéem a créer link yi parce que xam nañ ni ñooñu ñooy def ñooy dindi. waaw léegi ñooñu ñooy jéem a fréquenté ñoom pour mën a am accès ci groupe bi carrément. Mm-hmm. léegi nag yow tu es obligé de tout faire lépp lu sa xel jox pour nga am xaalis da koy def par exemple da nga fay gis koo xamante ni xelam day dem ci mu dem defi euh, defar faux pour mën am xaalis ñëw da nga gis koo nga day day dem daji papam wala mu euh, arnaqué yaayam wala mu dem arnaqué kenn ci seen famille pour am xaalis bi ñëw allahu akbar da da nga gis koo xamante ni day génn da koy jaral mu génn dem sàcc u jàmbur wala sàcc leneenu jàmbur dem tay la ko jaay ko pour mën a am xaalis boobu daal ñuy rejoindre allahu akbar ils sont prêts à tout ils pour àgg fi nga xamante ni mooy le summum àgg ci niveau bi nga xamante fofu mo gëna gën parce que fofu fa la lepp di xew pour ñom ku demul fofu rek yow bokk go ci groupe bi à 100% allahu akbar euh, récemment rek euh, j'ai assisté à un euh, euh kii bu wax procès bi nga xamante xalé bi liñ ko doon juger mooy que mom ci benn team la bokkoon mhm team bi bi mu bokkoon boobu dañ doon def ay cotisation moom amul woon cotisation ay waajuram amuñu woon doole boobu euh, xamul woon fu mu jëlee xaalis bi il a fallu un gars bi nga xamante dañ ko moom day liggéey ci ay faux ak yooyu mu dem rejoindre gaayen boobu kooku di ko jàllale le faux bi muy link ak moom ba tey ji condamné nañ ko ci euh, bi keroog ma assisté projet procès bi presque plus de cinq ans de prison condamné nañ ko ci. te xale la. te xale la un jeune bi nga xamante ni doo ko xoolee il n'a même pas dix huit ans dal leer nañ allahu akbar ñu condamné ko plus cinq parce que lan juste moom bëggoon na àgg niveau bi moroomam yi àgg Eh, bëggoon eh, di di di gis li ñuy gis di def li ñuy def bu ñu defee mu def bu ñu def bu ñu bu ñu bu ñu dindee mu dindi comme moromam yëpp donc eh, mu jaral ko mu dem sacrifier ay fam ba tey jii dugal na ko ci loo nga xamante ni moom xamul fu mu koy waxee ay juróom amuñu luñ ko fa génne allahu akbar donc am bari na ci ay pàcc yoo xamante nit ñi lu nekk la leen di jaral pour ñu bari na ñu ci yàq seen àdduna bari na ñoo xamante dawal nañ jakarta di këf pour juste rek bu samedi jotee bu weekend jotee ñu am li nga xamante buñu génnee dinañ ci mën a louer auto pour groupe bi wala dinañ ci mën a louer appartement wala dinañ ci mën a louer benn euh, kër boo xamante ni dafay am piscine daf leen di jaral lu ne bari na ñoo xam ne sàcc nañ këf nañ ñu jàpp leen euh, jël def nañ bêtise bu nekk ñu jàpp leen tey ji loolu moo leen dugal kaso ndax team yooyu noonu waaw akbar fii fii à à Thiès nag demee fa bu njëkk Dakar la gënoon dox mais mën naa ni instant bii nii nii mën nañ ni Thiès sax bokk na ci ñi téye flambeau bi. fi mu présentement. Ah, mën nañ ni Thiès bokk na ci ñi téye flambeau bi. parce que bu njëkk bu njëkk euh, fi doomu ñi nga xamante ni dañoo riche ñoom rek ñoo amoon euh, possibilité yooyu. mais mmh. nag léegi nag demeetul noonu xale yi ñoom ñëpp lijjantiwuñu seen waajur riche na lijjantiwul seen way riche na mais ñoom dinañ fexe ba li seeni morom di def dinañ ko def dinañ fexe ba li seeni morom di am dinañ ko am dinañ fexe ba téléphone bi seen morom yor dinañ ko yor dinañ fexe ba oto bi seen morom yi di dawal di ko loué dinañ ko def de même que ni muy nekkee ci ku góor gi noo ko raw lay nekkee ci ku jigéen gi allahu akbar kon jigéen ñi tamit dafa am rôle bu ñuy joué ci biir ñoom bu rek séduction bi ak yooyu. am na bi yeneen rôle yoo xamante ni jigéen ñoo koy joué am na ci euh, jigéen ñoo xamante ni ñoom ñoo daan indi cotisation yi. am na ci ñoo xam ne ñoom ak seeni frère ñoo bokk ci même team bi ñu mais ñoom ñaar ñoo daan comploter pour mën a arnaquer seeni jour pour mën a indi seeni cotisation. allahu akbar ki papaam daanu mësu ko wóolu mais ku jigéen ki moom la wóolu woon. léegi mais ku góor ki defoon na d'une manière ba nga xam ni li mu bëgg a def ci ku jigéen ki lay jaar moom mooy euh, dem sàcc papaam waa ji wax ko fi papa ji denc ak yëpp moom mu dem sàcc papaam indi ñu def li ñu bëgg a def. waaw kon Massa allo allo Haj. Masa Haj Masa waaw xam naa ni soo demee réseau bi la waaye moo ngi woon ci lu garaaw ak garaaw ak garaaw moo ngi doon expliquer lu yéeme yéeme yéeme loo xamante ni ah jur yu bari li wóor mooy yëguñu lan mooy tiim xamuñu lan mooy tiim suñ ne tiim sax jàpp nañ ni dañuy tiim pour julli waaye tiim bii day mooy tiim boo xamante ni daal ku ca ku ca bokk danga nga xalku kenn mënulaa tee alku waaw dégg ngeen lim ci wax yépp ci oto yi ci euh, oto yi ci solu yi ci naxaate bi ci càcc gi ci fen yi ci manigance yi eh, ci mu jaral leen lu nekk ci àdduna ngir ñu am li ñu bëgg mu jaral leen lépp lépp ci àdduna ngir ñu am li ñu bëgg waaw lu raglu la donc man dégg naa fi oto waaw dégg naa fi

Mm-hmm. kooku li yàq euh, linkam xale bu jigéen boobu ba mu wàccaat ci suuf mooy que ni frère bi dañ ko jàppoon euh, ci accusation viol ak beneen xale bu jigéen boo xamante ni dafa disparaître ay waajuram mm-hmm. moom ci loolu lañ ko tëjee woon kaso mm-hmm. ba tax sœur bi link yam mënoon a am ak moom yëpp dil yim ko doon tegal pour mu mën a sàcc papaam yëpp mënatu ko woon am légui automatiquement koku ñepp dañ ko bëddi sanni ko té pourtant bu jëk ñepp mom lañ gënon la respecté ñepp mom lañ téggon ci yow mais keroog bi mu amuté les cotisations ñeu kenn tegatu ko fenn ko mu waxa dang koy doroxal xal dang koy ñak kër sa kon dal so amé ñu respecté la so amul so ñu bëccé ngal la toroxal la tu n'es rien du tout ñom pour ñom ñepp lay jànni ñepp lay toroxal Mhm. niveau bi fa gars yi di dugg sax yow ñoom dootuñu nangooti nga am fa accès. la ilaha illallah waa léegi ma ne. Mhm. sanq dégg naa la nga wax affaire secretaire général ak xaw lan loolu doo mu ko expliquer ba mu leer ñoom nan la ñu nan la ñuy organiser woo ñoom. Euh, parce que bu ñu ñëwaan souvent timi li ci ëppoon doole mooy ñaari poste yi moom lañu daan nommer lu ci ëpp doole. mooy yan. moy euh, président bi ku nekk day def le tout pour nekk ko parce que président ci ci ci euh, association wala président ci groupe wala président ci réew ñëpp xam nañ dooleen ni muy toll. waaw. Euh, donc boobu moom du soxla ñu koy détaillé mais secrétaire général aussi ñëpp xam nañ que ni moom tout ce qui est organisation lépp luy jàll lépp luy dugg lépp luy génn ci loxoom lay jaar. Hum, hum. décision yeeg yu ci bari ci moom lay président bi parfois du sax wax dañ koy jox information rek moom mu valider ñu daal di dem suñu yoon sur le terrain toujours secrétaire général bi moom ngay ëpp li ngay li nga koy gis donc da ngay jàpp ni moom il est tout donc il faut nga am benn nit bi nga xamante ne dina am xam-xamu àdduna tuuti bari ay lijjanti bari ay pexe bari ay dugg-dugg ak yooyu. Mm-hmm. pour moom mu mën a gérer poste secré secrétaire général ñaar yooyu ñoo ci doonoon circonstance euh, ñoo ci gënoon am solo parce que moo doon moo doon tax képp kuy góor wala képp kuy jigéen ci groupe bi ngay rayante di def lu nekk di rey sa bopp di sàcc di indi pour gagner ñaari poste yooyu parce que ñëpp xam nañ ni ku nekkoon ci ñaari position yooyu yow maanaam yaa nekk au sommet yaa nekk au top. waa léegi daan na am présidente wala secrétaire général bu jigéen wala góor ñi rek ñooy occupé loolu non non parfois daan am euh, présidente. comme doon am vice présidente wala vice président. yeneen mhm. poste yi nag am na yeneen yeneen poste yu ci bari farataaluñ uh, ko comme euh, à part relation extérieure yi te yooyu yëpp daanaka à part après secrétaire général bi moom mhm. mooy coiffé yooyu yëpp moo koy lijjanti. mooy ñu war a def uh, comme genre jumelage ak beneen CREW bu nekk Dakar wala beneen tim bu nekk uh, Mbour wala benen tim bu nekk beneen région. Mhm. te kii nga xam ni moom moo géré relation extérieure yi moom mooy moo daan mooy lijjanti loolu mais buy dem day dem à la euh, accompagné du secrétaire général ak yenn quelques membres yi donc moom du dem kese secrétaire général fuy nit di dem da nga koy yóbbaale donc moo tax nit ñi dañ doon def le tout pour accéder euh, ci poste boobu. Mhm. Amna ben benn bu wax ndey daro Fall nee assalamu asalaamaaleykum je viens de confirmer ce que Massa dit je l'ai vécu avec hmm. une de mes amies qui a ce même problème de team euh, avec sa famille. waaw macha allah Ndeye Daaro Fall maa ngi koy nuyu bu baax xamna bu baax xamante nañ. ah bismillah. <laughs> waaw ñoo bokkoon euh, suñu ñoo bokkoon jàng. macha allah <laughs> macha allah macha allah. noonu noonu noonu la ci demee donc pour wax pa wayjur yi nga xamante ni ñu ngi ñuy déglu yi nga xam ni seeni doom ñu ngi leen di jox le mot tiim di ko mbubboo pour mën a rëcc dem seen yoon amul lenn loo nga xamante ni nekk na ci muy avantage mm-hmm. du début jusqu'à la amul lenn lenn lenn loo xamante ni nekk na ci muy avantage ay inconvénients kese moo ci am te bu ëllëgee ñoom way juri duñ ci mucc ndax lépp lu dal ci seen kaw seen kaw ñoom lay tuuruwaat kooku mm-hmm. doon eh, def link ak ki doon defar foofu yeey keroog way way juróom bu jigéen lu ne def na ko ci eh, tribunal ndeysaan lu ne def na ko jooy na yuuxu na foofu yëpp ba nit ñi yaakaar ne sax dafa dee mais day lu lu dul cofeel gi mu am ci doomam ñu nar koo tëj plus de cinq ans te moom mënu ci dara waaw kooku avenir am avenir am yàqu na. fini il est foutu moom loolu la xam motax tax euh, xamatul woon nan lay def yaa ngi lu leen def na ko. Mhm. léegi. Euh, ah. Massa mané mané oh, dama ne. bëggoon ñu gëna ñu gëna a pratique. Mhm. par exemple tay jii ñaari question la bëggoon a poser benn bi moy par exemple ndax mën nga ma jox une idée sur une somme.

yan bërëb moy ñaari question yoy da la bëgg nga bëgg bëgg tontu ñu nga bëgg nga tontu ci ñu soog a avancé. d'accord euh, bi ci njëkk moy somme yi nga xamante ne dinañ koy faral di utiliser pour def VSD yi wala pour def piscine party yi. Mm-hmm. Euh, pour def piscine party bi nga xamante mo gëna normal piscine party rek. parce que ci piscine party ni mu amee concurrence ci biir euh, ci biir team bi noonu lay amee concurrence entre ñaari team yi nga xamante ni ñoo am ci benn région bi. allahu akbar parce que team bu nekk da ngay fexe ñu gën la dégg da def lu gën a extraordinaire pour mën a récupérer membre team boobu ñu ñëw doole ko ci yow nga gën a am doole mhm. euh, piscine party budget rek euh, minimum minimum minimum li gën a ndaw pour nga am piscine bu tane mën nga dépasser quatre cent à cinq cent mille francs allahu akbar benn piscine party bu normal rek mën nga dépasser quatre cent à euh, six cent mille francs parce que local bi ngay jël parfois da ngay utili da ngay jël euh, benn moyen de transport bu nga xamante ni moom moo yóbbu ni ñi di nga di jënd consommation foofu di nga fay sonorisation yëpp da nga koy fay donc il faut minimum cinq cent mille quatre cent mille francs bu réunir bu somme global nga soog a mën a doxal benn piscine party boobu xam ne benn ngoon rek lay nekk ben ngon kon legui boudé par exemple VSD day nek 1 million 500 1 million 500 1 million 2 millions même ça da koy nek wow. parce que fofu dañuy def buñu def comme location car wala location bus dédé dañuy def ay location voiture yu ndaw yi lañuy yobbu ay 4 4 ak yoy lañuy loué la ilaha illa allah la 4 4 bu ci nek di nga fay journée 40000 gën ka touti essence bi pareen saa yi nga jël chauffeur mu dawalal la danga nga koy fay pareen saa yi nag groupe bi am ci ñu man a dawal ñu dawal oto nga war a loué euh, fi nga xamante ni moom nga war a defee VSD bi muy euh, appartement bi wala kër gi mhm. di ko dinga ko loué benn sept cent six cent mille minimum moom tamit pareil di nga outil sonorisation teg fa ndax eh, tey it koo koo tëj ci kër trois jours di nga ko jox mu lekk di nga ko jox mu añ mu reer mu ndékki. ça fait peur. Euh, plus consommation mooy mooy comme alcool yi comme cigarette bi euh, comme chicha yi parce que location chicha rek ñu ngi koy defee benn benn chicha bi ñu ngi koy defee cinq mille francs. Mhm. ñu ngi koy defee cinq mille francs donc il te faut minimum minimum minimum nga am dix à quinze chicha. plus charbon yi ngay jënd ak matériel bi ko war a allumer ba chicha bi fonctionner normalement donc yow ci chicha bi rek mën nga ci dépenser benn cent cinquante mille à deux cent mille francs la ilaha illallah waaw Massa mhm. loolu bëggoon naa la ko laaj sànq ci oto yi wax nga ma ko leer na oto yi dañ koy louer wala ñu ñu ay pe ñu wut seeni pexe mais am na loo ma waxul te mu intéressé ma lool mooy seen solu waaw solo bi solo bi euh, souvent comme noonu rek ku la ku la gën a sol lu lu ku la gën a sol lu lu gën a sexy moo lay ëppale niveau bi muy nekk lu mu lu mu lu mu sexy doyul lu say partie intime génn doyul te it solo bi lu mu gën a cher doyul dañuy concours ba concours dàll yi nga xamante ni moom la ñuy sol kii day sol dàllu cinquante mille ñëw taxaw kii dool sol dàllu soixante quinze mille kii ñëw dool sol dallu cent mille franc ñëw taxaw. subhanallah wa bihamdihi te bu nekkee comme comme VSD bi la yow da bëgg sol bi ngay sol vendredi bi bi ngay dem du bokk ak bi ngay sol samedi bi bi ngay yendoo du bokk ak samedi guddi gi du bokk ak dimanche bi. yow solo rek seet solo rek rek rek bu normal mën nga ci dépasser yow plus de deux cent francs yow nit ki en personne solo cassé la ilaha illallah da ngay am habitude yéré e bi nga bi nga sol tay ji bëggoo suba ñu gisaat la ak yéré boobu habitude boobu ngay am boole koog takkaay yi Eh, yenn yenn ak ki accessoire yi nga xamante ni moom lay àndal comme montre yeeg yenn yooyu yëpp da ci bokk donc yëpp du ci <laughs> ci ci milieu bi la bokk il faut tu es obligé nga def parfum de classe bu neex parfum bu normal euh, ut sa montre bu cher takk ko ut sa chaîne takk ko ak say euh, mbir yu bari donc ci moom nekk na loo nga xamante ni sëriñ wax képp koo nga xamante ni dégg nga ci sa doom wala gis nga ci sa doom muy loo war a mën a dakkal automatiquement bi nga ko déggee. waaw Massa. parce que ci loolu Serigne waaw. loolu dinañ ci ñëw incha allah léegi euh, tontul sama ñaareelu question bi mooy yan barab lañ koy lañ koy gën di defee loolu c'est important. waaw euh, parce que fii fii Thiès euh, moom lañ moom lañ gën a miin parce que fii lañ nekkoon. amna fi bërëb bu ñuy wax Cheikh Aïda am na fi bërëb bu ñuy wax euh, Cheikh mhm. Sophie mhm. amoon na euh, euh, piscine polytechnique mhm. amoon na aussi Enova. am na résidence Lat Dior amoon na bu Dooso am na aussi bu ubbi récemment muy les les pédagogues Ah, dafa am lu mu bokk. xamante ni euh, mu ngi nekkee fële ca ca Zagba. Mm-hmm. Cheikh Aïda bi mi ngi nekk côté euh, après avant xombal noonu. ok léegi bu dee ci yeneen région yi yan yan barab lañ koy gën a defee. bu dee ci yeneen région yi euh, yu ci bari nag yooyu seen tur laa dul jàpp. Mm-hmm.

waaw je vois. mais mais bu fekkee VSD na nga bëgg kooku tu es obligé nga dem sali wala nga génn dem yeneen dëkk pour mën a euh, nekk à l'aise louer plage bi louer géej gi euh, plage bi ngay nekk kër gi ngay nekk day am piscine en même temps yooyu yëpp da nga koy da nga koy da nga koy prévoir. moo ngoog léegi dafa mel ni ñoo ngi avancé te yëf yaa ngi gën a leer léegi Massa. wax nañu lan mooy tiim leer na hmm. wax nañu seen organigramme ak hmm. seen organisation ak seeni cotisation ak seeni soirée lan lay jar ak fan la ñuy defee soirée yi léegi nag dañoo bëggoon mu ñu gën a précis ndax maa ngi gis gaa yi tey jii ñoom yaa xam ak ñëpp ñi daan bind talu ñoo sax bind ñoom sax dañoo jommi allahu akbar la ñuy bind subhanallah eskay ñëpp a yéemu ndax musuñoo jàpp ne lu mel nii moo ngi ci biir réew mi te lu fi yaatoo yaatoo yaatu la tey jii jur na lu bon lu nekk ci àdduna scandale yi ngeen dégg mu dem ba tribunal tey jii ñuy toroxal ay nit moo ngi jóge ci tiim yii donc nag léegi dama bëggoon nag de manière très pratique et très précise nga expliquer ma exactement ci biir jotaay yooyu lan lañ fay def masa waaw a ah, su daggee de lu war la ndax lii euh, yéeme na lool lool lool lool son borom seede na lool maa ngi bàyyiloo xel tamit wuy juri ci phénomène beneen boo xamante ni euh, masa waaw bismillah ma ne waaw yaakaar naa dégg nga li ma mujjee wax. waaw waaw bismillah dama ne. nga wax ñu exactement ci biir piscine party yi ci biir team yi ci biir VSD yi ci biir semaine yi exactement lan lañ fay def ca biir pour waajur yi xam seen doom yi li ñuy def ci biir lu mu doon. d'accord la exactement lu ñuy def foofu ci biir lan lañ fay def pendant une semaine léegi léeg pendant ñetti fan.

ci VSD yooyu wala semaine yooyu ñuy xamante ni dañ koy def boo demee da ngay mel ni ku nekk ak sa jabar. allahu akbar. lépp li nga xamante ni bor kër mu ngi koy sekk soxnaam wala soxna mu ngi koy sekk ak borom këram boo demee ci piscine party yooyu wala ci VSD yooyu da nga ko fay fekk. subhanallah. lépp lépp dafay am lépp comme côté alcool bi aussi amul très rarement nga fay gis. jigéen wala góor bu fa nekk te naanul alcool wala toxul yàmba très maa nga koy gis muy comme ci jigéen ñi muy kom ci góor ñi allahu akbar parce que yow soo xasee ba dugg foofu rek boo deful loolu pour yow bokkoo allahu akbar tu es tu es obligé lolu nga def ko par force parce que mom sax lolu sax moy nek euh sa carte de membre moy tax nga inté mën intégrer intégré team bi. waaw ah, soo soo deful lolu day melni espion nga. voilà so deful lolu day melni yow boo ko ci bi da nga ñew pour yàq wala dañ la yabal ci ñom wala genre truc donc tu es obligé lepp lu ñu def dang koy def. allahu akbar. moom par force par par force la. jigen ni ak góor ni ñoy fanaan amul ben jigen buñ fanan fanaan ak moromu jigenam amul gurni ni ak jigen ni ñoy fanaan te ku ci nek ak sa chambre ngay nek parfois même sax nga gis ñaari góor yu bok ak ben jigen chambre fanaan ak mom te dañuy nek ak mom comme ku nek ak sen jabar allahu akbar parfois dang ci gis aussi comme ci góor ñi ben góor bu nek ak ñetti jigen mu bok ak ñom nek di nekk ñoom comme si ku nekk ay jabaram te ñoom nekk ci même endroit bi di bokkandoo li ñu defandoo au même moment allahu akbar waaw loolu nekk na li nga xamante ni moom dafay am ci biir Euh, euh, VSDI ci biir semaine yi ak ci biir tim yi. waaw kon benn ngoog ci euh, ci li nga njëkk a wax ni doo ñu ñëwee li ñuy njëkk a def mooy ku nekk nekk ak ka nga nekkal. Hmm. waaw léegi. Hmm. ma ne leneen lu ñuy def. leneen li mooy consommation alcool bi. Hmm, Euh, yàmba bi ñuy mm, ndax dinay am ñuy màndi am na ci ñuy màndi dañuy naan ba ba ba màndi ba saali ba euh, tàggali ko seen sago ba def ay bêtises yoo xamante ni ñoom après bu ñu paree ñun leen yéen defoon lii sax dañ naan du ñoom waaw mais kon foofu viol mën na fa am yàgg na arrive am na ñoo xamante ni am nañ alcool ba génn taal euh, oto jàmbur bi nga xam dañ ko luwe woon génn mbëkk euh, benn mur wala ñu mbëkk oto jàmbur def accident wala dara ba am problème ak euh, ki leen luy woon oto finalement ay police ak yëpp daf ci am yoon dal nañu bat am na bataay allahu akbar mm. yooyu yooyu ci am waaw mais est-ce que du am ay lu mel ni ay viol wala wala yu demee noonu yu yu yu euh, forcer nit dara parce que foofu fi euh, li ma wax nii bu dee sàngara dugg na yàmbaa dugg euh, tox dugg mais musique bu fort dugg sago mën na fa bañ a nekkati de. dëgg la parfois nga gis ci jigéen ñi nga xam ne dañuy soog a ñëw comme ça ñoom dañuy wan jàpp ni ñoo gën a yeewu ñëpp dañuy wax ni man de du ma demee lu ma bëggul def kenn du ma ko defloo. Mm-hmm. mais boo demee euh, am na niveau bu góor ñi di tollu duñ la defloo di nga ko def te du la neex de dinañ la forcer ba def la ko te yow doo ñemee génn fenn nettali ko ndax ba ngay génn sa kër wala ba ngay génn fa nga jógee ci loolu nga jëm. subhanallah doo fenn. subhanallah. da ngay préféré nga ni batt ak loolu dundaaleeg moom nga dem sa yoon. subhanallah. te am na ci ay team yi nga xamante ni ay ay gang groupe de ay gang bandi ñoo ci ñoo ci daje parfois mhm. yow boo xëstee ba intégré leen amatuloo benn droit nga génnaat comme comme comme li nekk ci euh, ci gang yi nekk euh, Amérique les Crips ak xawma leen ñan voilà parce que ñoom jàpp nañ ni boo ci génnee rek di nga dévoiler seen secret yi nga xamante ni moom mooy am ci team bi yëpp ñoom jàpp nañ ni da nga koy dévoiler donc boo ci génnee dootoo amati jàmm. MS13. show. Crips wax que ni fu ñu tajee dañ lay rey wala dañu la fexeel ñu boole la ay nit wala ñu dugal la ci benn affaire bo nga xamante ni euh, dina dina di nga ci risque prison leneen rek et cetera et cetera mais doo ci xasee ba dugg moom doo génn di am jàmm. sa àdduna moom lu ci ëpp bari ci ñoo xam ne seen àdduna foofu la jaaree yàqu. waa léegi masa mm-hmm. ragal naa ni euh, man de li ma dégg sama nopp yi doy na sëkk. Euh, donc léegi dañuy dem ci question boobu nga commencé woon di ubbi sànq ma waxoon la ne la dinañ ci dem mooy euh, lan mooy lan mooy danger wu. lan mooy danger wu te lii dafa mel ni ku ci nekk dangay jàpp ne yaa moom àdduna doo gis dëgg doo dégg dëgg da ngay da ngay dof lii ku lii ku ci nekk da ngay dof man ni ma déggee li nga lii ku ci nekk mënoo kenn mënu a conseiller wala mu waar la wala mu wax ak yow ba nga dégg ko mënul ne te li ci dangereux dafa mel ni tamit dañuy dund seen dund te kenn du ko xam mooy tey jii dañuy dem def seen VSD ñëw toog ci koñ bi soo demee sax ñoo ngi dem jàkka ji di julli ji wala ñoo ngi bokk ak ñëpp correct fekk ñoo ngi dëkk bi lolou façon façon jubadi gu gu gu gu set wicc la ndax bu njëkk bande yi doon leen daan xamé ci seen ay ñaas ak yoy mais li nga ma wax ni mais ay bande yu 7 nga ma wax ni bande yu 7 légui lan lan moy danger wu euh euh li nga ma wax ni lan moy danger yow en tant que jeune et puis lan ngay wax jur yi nga xamanteni dama bëgg li suñu paree njóogu mboocu dagg ko ñu jël ko tassaré ko te man dafa am ben question bu ma bëgg poser après mën am ci fin bi sax nga jëm ci répondre lan motax li bam dalé am batay ken musulu musulu gis ben journal de euh, euh, euh, wax ci musoo gis ben journaliste d'investigation wax ci musu au contraire man ñima ma ñu don promouvoir timi ñom ci sen bo promouvoir nan len jox nan len ay émission jox nan len ay cër tey jii yooyu moo jur émission yii jur scandale yi am fi mu ne nii Sénégal fi ne nii yooyu moo ko jur bëggoon naa nga ñëw ci loolu ndax dafa mel ni euh, foofu lañ toll mooy danger yi ak waajur yi nan ban taxawaay lañu war a am fi ne nii. d'accord euh, foofu li may li may wax rek ni danger bi ci am mooy yow euh, niveau boobu boo ci xasee ba toll yow tu tu crois que ni. tu es seul sur terre da jàpp ni yow yaa gën a muus àdduna bi pour yow yow rek yaa wér ñi ci des ay dof lañ. ñi nekkul ci milieu bi pour yow ay dof lañ pour yow yow ak ñi nekk ci sa ci sa milieu kese yéenay ay doomu aadama yéenay yéenay ay nit donc pour nga def bêtise dafay yomb lomb lool du wéy jur du sa pap du sa yaay du kenn koo nga xamante ni danga koy xàmme da nga koy ràññeeti. yow sax xarit wala jigéen bi ngay nekkal wala góor bi ngay nekkal moo wax la nga def sax mooy gën a yomb ko sa waajur wax la nga def. laa ilaha illallah. parce que dina la tàmmal dina def ci yow la nga xamante ni daanaka genre drogue lay nekk ci yow boo ko jëlul rek doo nekk nit dangay tàggali ko ak sa sago daf lay permettre nga def n'importe quelle bêtise n'importe quelle bêtise daf lay permettre nga def ko. donc yow mën nga toll benn bu boo xamante ni sax say wéjur buñ la naree xañ loolu dangay reyante ak ñoom pour dem rejoindre groupe bi da lay jaral nga bàyyante ak ñoom pour mën a dem rejoindre groupe bi. genre sect la man li nga wax ni secte la. daanaka loolu la ci tënk. secte la lañ ko mën a tuddee. Hmm, secte la. Hmm. c'est des waajur yi ban taxawaay lañu war a ci lii xaaj Massa. Euh, taxawaay biñ ci biñ ci war a jël mooy que ni ñu gën a euh, vigilant ci seen doom yi surtout doom yu jigéen yi comme yi leen di wax maa ngi dem anniversaire sama kër xarit bi maa ngi dem seeti sama xarit bii dafa xewle nangam maa ngi dem jàppale ji ko ci nangam yu ci bari la yooyu lañuy joxe pour mën a dem rejoindre groupe bi. éviter aussi di dëkk ak seen doom ñu naan université damay euh, logé euh, excuse boobu lañ am dañoo euh, jàppaloo àdduna bi que université alors que mosuñoo nekk université université ñu bari sax appartement yi yi la ilaha illallah. donc pour euh, précaution yi ñu ci war a jël mooy détails yooyu yëpp ñu fexe ba éviter ko dégg fexe ba xale bi information yi daw ci moom yëpp nga koy am vingt quatre heures sur vingt quatre li muy dugg li muy génn nga am vingt quatre heures sur nga fexe ba fu muy mënti jàngee it yow na nekk sa wet ba nga xam ni fu lu mu mënti dugg ci journée bi yow information yëpp di nga ko am mais boo bëggee lu yomb nekk nit ko nga xamante ni da ngay ñeme daw say responsabilité un deux wala nga topp sa bëgg-bëggu euh, doom mi ngi université jàng na am na bagam daa dem université wala dara ci loraange lor xale bi lor sa bopp rek ngay mujj ndax ñoom ñu ñëpp xale yi yàqamti nañoo am bag ba ni maa ngi dem université Dakar jàngi wala maa ngi dem université bi jàngi parce que loolu léegi moom lañ defee lay pour mën a euh, mën koo laytaayalee seen tooxi doonu yooyu nga xamante ni moom la ñuy def ñu ci bari étudiant étudiants ñom ñoy ñom ñoy def lool subhanallah subhanallah. légui nak dem nañ ba impliqué nañ ci suñu xalé yi nga xamanteni ni ñoo nekk ci lycée yi parce que sax yu ci bari léegi foofu lañ koy défé diko ko profité ci euh, euh, ci. Euh, ouverture foyer yi ouverture soirée seet yépp dem nañ ba impliqué leen ci dem nañ ba impliqué ci seem yi aussi. famille te te te te dégg naa tey tey am na ko ma ci waxtaanal mu ne euh, li ñuy rassurer parents yi par exemple bu dee team yi la yooyu grawul mais bu dee euh, VSD yi wala soirée d'intégration yi ak Fosco yi dañuy wax ne y a des professeurs yu leen di encadrer mais benn professeur nan la mën a encadrer cent élèves. bu dee ñoom ñoo ngi nekk pendant trois jours et puis bu dee professeur ba jeune la comme ñoom di bëgg la ñuy bëgg di def la ñuy bëgg def <laughs> mais nan lañ leen di contrôler. amul ah, mosu mosu mosu leen contrôler. <laughs> mosu mosu leen a contrôler waaw ah, xam ni kat yow yow di ngay dem ba benn moment yow da ngay tàggali ko sax sa sago yow boo tàggali ko sa sago nooy. contrôler koy contrôler koy koy koy xam nga fi mu ne da jox envie mais parce que euh, gars euh, ils sont dangereux ils sont dangereux ils sont dangereux. y a tellement de choses mënu parce que la da film rek daan waaw wax spring break am film américain film lycée film euh, université américaine yi spring break waaw ñun loolu loolu la ñu xam mais mais lii nii ah, ci Sénégal ah. mi ngi mi ngi mi ngi dox fii ci réew mi mi ngi dox fii nii ci réew mi bari na fi lool lool lool lool sax. benn la benn la benn la. bari na fi mais man de li ma jaaxal mooy mooy mooy mooy ñi euh, chinois yi de ñii ñuy xas ñoom de dañoo fexe xool fi ñuy wax Harvard.

amna amna ay revue yu ndan jënd di def ay ki ci lañ dan jànge ay lettre d'amour ci lañ dan mais yu bëri ci lañ ko ci lañ ko ci lañ ko defee mais mais loolu loolu jarul roy gis nga ñi baax fii seen doom yaa ngi fii fi ñuy wax euh, science Po seen doom yaa ngi fi ñuy wax école polytechnique ñi ñi fii ñi baax ñi ñu bëgg ëllëg ñu yor seeni réew ñoo ngi fii ñu leen di defar euh, ñi nga xamanteni ne wuñu tous duñu tekki tous la fexé réussir ci fekk 2000 yu te réussir bi musique ak fecc ak sport mais su déxé lu nak euh, lu am solo lu am lu zéro euh, ça fait ça fait très mal ça fait très mal ça fait très mal waaw ma la la les ni euh, li tax euh, euh, yi waxuñu ci homme de homme homme politique yi waxuñu ci que waaw kay question intérêt intérêt personnel mom défendre nan intérêt personnel borom télé bi donc il a besoin mu def bêtise publier bêtise publier loo xamante ni fitna la publier loo xamante ni du jàmm pour mën a am li nga xamante ni moom la soxla ci teleem léegi nag yow boo ñëwee bëgg contrer loolu li nga bëgg ci télé ba doog fa am ba day na sax ba loolu moo impliqué léegi suñu chaîne YouTube yi hmm. da ngay gis yow boo bëggee booster sa sa page YouTube tu es obligé nga dem jël benn vidéo sextape wala nga dem jël benn vidéo sabar wala nga dem jël benn vidéo soirée dansante wala nga dem jël benn vidéo piscine party vidéo boo xamante ni dafay xaw a euh, euh, dafay euh, wax ci wàllum sexe genre truc wala détail yooyu nga dugal ko par contre par contre mooy contrairement ak boo dugalee vidéo boo xamante ni da nga ciy jàngale da nga ciy wax lu baax da nga ci wax waxu mag mi da nga ci wax waxu yonent bi da nga ci waxu yàlla nombre de vues bi nga mën a am fee ne <laughs> ci dix ans fee mën nga ko fa am à deux heures de temps maximum ci deux heures de temps. la lecture. maximum da ko fay am donc ñi nga xamante ne ñoo nekk ci télé yi léegi ñoom loolu la ñuy def genre jeu boobu la ñuy joué léegi nag euh, pour ñoom ñu. génne loolu ci seen i doom génne ci seen i doom léegi ñun ñi nga xamante ni ñooy innocent yi ñooy ba doomu baadoole yi ñu jàppaloo ni ba ñoom doom loolu lañu dunduloo ñoom dañ koy wax mais boo xoolee ñoom ñooñu ñëpp seen i doom kenn toogul ci réew mi kenn nekkul ci université yi kenn nekkul ci yenn école yi nga xamante ni fi la fa la caaxaani ëppee ñoom ñëpp rawale nañ seen i doom génne nañ leen mettre nañ leen dans des très bonnes conditions légui nak ñun ñu ñi eh, ju wan que ni eh, li lañuy def alors que c'est le contraire ñom defu ñu lool li ñi jàngal ci télé bi ak ñom li ñi jàngal seeni doom musul bokku du ben donc ñom pour défendre seeni intérêt personnel et tax ni ko yi lañuy monter pour mëna eh, sauver seen bop te dinañ sauver walé seeni doom la ilaha illallah wax nga deug parce que scandale yi am yépp ñi ko sooke déggoo ci seeni doom ndax seeni doom nga am Amérique ak France di jàng fi ne nii doo doomu baadoo la ya dëkk kédu Kédougou Koldaak ak Malem Odar ak Maka kulibanta ca ca ca Ndar doomu baadoo la yooyu ñoom ñooñu fi mu ne nii ñoom la ñuy yóbbu tribunal te fi ne nii ñi ñi def promotion caay-caay yooyu yëpp ñoo ngi toog seeni doom ñoo ngi leen yóbbu Amérique loolu mooy dëgg benn benn soirée bu ñu bu ñu bu ñu mësoon a organiser. Mhm. Euh, waa ji dafa ànd ak xarit bi ñoom ñaar ñu àndi dawal gis nga bi ñu defee accident bi dañ leen a jàpp ñoom ñaar ñëpp yóbbu bi ñu demee kenn ki papam dafa am xaalis dafa ñëw ci saa saasi ñu wax ko caution bi mu fay ko doo génne doomam fanaanu fa mais keneen ki def na fa ay mu mois de mois de prison def na ko fa parce que papaam ak yaayam amuñu lu ñu ko fayale donc pour wax que ni la doomu baadoo lay toujours toujours ñoom ñooy payer les pots cassés dëgg la toujours dëgg la xaaj masa xaaj masa mm-hmm. damay wax ne euh, victime la na promouvoir tey télévision yu mag yi yor seen émission li wax xam na battles battles yi ñuy def ci émission yii di concours concours fecc lu euh, euh, comme la fa amoon euh, xawma colline de vacances bu euh, lan xaw lan des vacances Oscar des vacances ak lu melni sen petit gàlle dégg nga prolongation team bi ñuy wax la ndax ñanan promouvoir team ñoy promouvoir lolu ba tey d'accord euh, li ci dess dama ne kenn ku ci nek xolal xolal lañu produire ñi fi mu ne ay scandale lañu produire ay jigéen ñoo xamante ni seeni moroomu bàyyi lañu topp di ànd di caaxaan ba tey jii ay tribunal moo ci mujj doomi jàmbur doomi baadoo la loolu lañ produire ñoo ngi produire ay jigéen ñoo xamante ni tey jii sànq nañ leen ñoo nga ca àll ba di futteeku di doye di di di toroxal seen bopp waaye nañu xool Pape masa ne lu lu lu àdduna lëndëm lëndëm lëndëm nañu xool am na ci yeneen école yoo nga xamante ni ñoo ngi produire am na benn xale bu jigéen bu ñuy wax maam jaara maam jaara maam jaara seen xel nag bu dem ci fi sam fi xel fi fi ngeen di njort man maa ngi wax maam jaaro ngom maam jaaro ngom mi nga xamante ni moo jëloon concours alquran 2017 mu ànd ak Mouhamadul Moustaba Diallo Mam jaaro ngom bu touba ken xamul mamam ci cëriñ ngom la sant santub sereer la yaagi deg ken santul buso santul lo, santul ka santul si santul mbake santul nyas, santul njegen waye tay ji kilifa yep teral nañ ko ndax mokal gu mokal alquran école ñi produire produire. ngom hmm. Yakarna, euh jeu bi may def ci communication yéen ngom fexé nañ ci wét ga wutal ñu fi benen mam jaara té am insulte la ap fo guñuy figure waaw ndax ndax artiste ko nom de scène tourne wu tourne wu euh, tour wu toll ni maam jaara soo demee ba bëgg ko defloo musique ba bëgg koo dugal ci loo xamante ni maam jaara loolu la doon xeex maam jaara loolu la doon jéem a dindi doomam loolu la doon dindi ci kaw suuf mais au moins ñu wutal ko turu seen wala bokk ñi bëgg maam jaara xam maam jaara fonk maam jaara wax ak ñoom ne leen su kii de du ñu nangu mukk ngeen koy tuddee maam jaara muy taxaw di futteeku di di yóbbu turu maam jaara foo xamante ni maam jaara bugg faa dem wax laa leen wax de maam jaara ngom am na benn jigéen bu ñuy wax bu ñuy wax soxna xadi daraame soxna xadi daraame moo nga dëkk ca Louga 2019 moo jël concours généralu jàng alquran ci Sénégal yépp loolu mbir la kon waa tiim ak ñu mel ni ñoom ñoo ngay defar ay jeunes yoo xamante ni tey jii ñoo nga tribunal ñoo nga ca clip ya ca clipu américain ya ñoo nga futteeku ñoo ngay fo ñoo ngay nekk ay lesbienne ñoo ngay tux yàmba ñoo ngay toj dëkk bi ñoo ngay wër dëkk bi ñoo ngay ñoo ngi am seen i euh, seen i seen ñu bëri dof nañu ñu bëri rakkaaju nañu ñu bëri xaru nañu ñii ñoo ngi jël am ay visa di dem réew mu leen neex dëkk bu leen neex di dugg fu leen neex fu ñu dégg soirée ci àdduna bi dem waaye tey jii am na beneen école bu nekk ci wet gi moo ngay moo ngay produir ay Maam Jaara Ngom di produire Soxna Xadi Dramé ca Louga waaye tamit duma wax lii mukk te sama xel demul ca poroxaan poroxaan nga xamante ni fi ne nii ma lay wax ni am na juróomi téeméeri maam jaara juróomi téeméeri maam jaara j'insiste bien juróomi maam jaaraa nga foofu te ñépp bala ñoo génn ca foofu ca poroxaan tari alquran ba mu jeex juróomi téeméer 15 millions la ñuy dépensé par ak parweer ci ñoom mu seen dund

kenn ku ci nekk am foo jëm ñooñu suñ tasaaroo ci réew mi day gën a baax waaye ñii de ñi nekk ci tiim yi de duñ tasaaroo ci réew mi la muy jur gis nañ ko mooy viol yi mooy euh, scandale yi mooy procès yi mooy musiba yi mooy taxawaalu yi mooy lambar lambar yi kon loolu euh, doy na waar lool lool lool lool lool loolu yàlla seede na lool. Euh, léegi am na benn point boo xamante ni moom laa waroon def deuxième point waxtaan wi waaye damaa dégg sànq nga sërxal ko ci biir. ma bëggoon nga ñëw ci moom ma bëggoon nga ñëw ci mooy wàllu carte te nee nga ma ci biir tiim yi day am carte mais bëgg naa nga wax ma ci carte tiim yi ak carte kiosque yooyu nekk ci ci mbedd yi man gis naa ko gis naa ko ca buntu lycée yëpp ya ca Thiès gis naa ko buntu CM yëpp gis naa ko buntu euh, ci euh, wetu euh, garage Jakarta yi gis naa ko point de rencontre des jeunes gis naa ko loolu bëgg naa nga ñëw ci ñu soog a tëj waxtaan wi incha allahu taala d'accord carte mm-hmm. euh, yi mm-hmm. am na ci am na ci yoo xam ni moo carte billard lay doon par billard lañ koy joué waaw luy loolu yow kii teg cinquante mille billard mooy genre jeu boobu di mel ni comme babi te du babi moom mooy bi ñuy jël bant bi di dóor bul yi voilà di jël bant bi di dóor bul nga ne benn bul ñaata jetons je bu nek 500 lañ la koy jaay mais bu fekke par soirée le mom moy gëna cher la ilaha illallah comme dans les casinos jetons mais nak voilà mais yow xaliss bi ngay miser pour jouer euh, avec ses adversaires mën nga miser ben genre comme 50 000 ou 25 000 pour jouer ben partie ngeen jouer 25 000 25 000 une euh, partie boo xamante ça va durer 15 30 minutes kenn gagné am na ci ñoo xamante ci ay xeex jamante leneen ak leen lañuy mujj ndax dinañ ko gañee ndax bëgg xaalis bi dem am na ci ñoo xam ne carte mariage carte mariage bii nii bii bii bii moom lañuy ñuy carte xaalis bi mm-hmm. boo boobu aussi bari na fa luñ ko xamante ni dañ ko fay dañ ko fay utiliser euh, euh, comme yoy nga wax aussi comme euh, qu'est-ce kiosque Carrefour euh, yeeg ce que j'ai yoy légui yoy sax danaka yu ci bari amatul fréquentation parce que ki nga xamante mo ci ligue toujours mi ngi di créer des méthodes yo xamante ça va être plus discret plus plus accessible ba xalé bi nga xamante sax dix ans la am bu ko nexé mu jouer ko. expliquez moi lolu Massa comprendre ma lolu jeux yooyu yëpp ay application lañ ko defal di ko wàcc ci sa biir téléphone. ah bon. da ngay mën a télécharger jeu bi toog fi nga toog sa kër nga jouer ko parier li ngay parier nga gagné automatiquement ñu verser la sa xaalis par Orange Money nga dem retirer sa Orange Money. la ilaha illa kon c'est plus grave que li ma doon xalaat kon. léegi nekkatul sax kiosque yi kiosque yi ñu ci bari dematuñ ci mais il y a d'autres applications yi nga xamanteni ni créé nañ leen uniquement pour lool la des logiciels uniquement pour lool la la ilaha illa illallah yow da ngay dem rek ci orange money bi ni ko damay retirer orange money mom du xam orange money bi ngay retirer lu mu doon ak fu mu jógee da ngay xëy rek dem nek sa téléphone di jouer kenn du xam li ngay def sa téléphone lu mu doon donc boobu moo gën a accessible moo gën a discret moo la gën a mën a détruire aussi. lii de man bi bi moom yi xaw ma ko woon Massa vraiment. léegi nag bu ci. Euh, non non daanaka boobu la ñëpp di utiliser kenn kenn kenn jouetul boobu. parce que parce que kiosque yi gars yi découvrir nañ ko te nit ñaa ngi ciy coow. nit ñaa ngi ciy coow léegi ci lañ dem créer application yi dem nañ ba ñi nga xamante dañ sax seen yoon mosul nekk ci jeu yi. léegi ñu koy jouer parce que application yi proposition yi day leer code match yi day yomb parfois nga japp ci parfois tamit ñu lekk ci sa somme boo nga xamante do xam fo koy waxee ci àdduna. hein da ngay gis ñoo nga xamante sax dañuy dem fay ay sëriñ pour ñu wax leen match bi nu muy démé match bi nu muy démé pour ñu parier ci. le ag nañ fofu dañuy dañuy fay ay sëriñ pour ñu defal leen lool Hmm, doy na war masa day wax dëgg yàlla man de daan naa def ay waxtaan yu metti wax dëgg yàlla waaye bii de euh, waxtaan wu metti la waxtaan wu méttee méttee metti la parce que euh, euh, bon looy gën a dem rek ñuy gën a jaaxle looy gën a dem mu muy gën a doy waar. looy gën a dem. benn du benn pièce bi nga xamante ne ni inventé nañ ko ci lépp c'est réel ba nga xam ni ku ko weddi tamit déglul sa doom bi naan la ci tim bi laa jëm déglu sa doom bi naan la ci boo demee nga bàyyi ko ba mu dem nga topp ci gannaaw nga xool boo demee nga fekk ko ca la muy la muy nekk. la ilaha illallah. du weesu yii nii ma la ci lii lay nekk. amul benn feebu positif. boo xamante ne demee di gêné léegi aussi am na bu ma bëggoon suñu sànq muy euh, defaale nañ ko euh, benn moyen boo xamante ni ci yey jaar pour mën a rëcc ñoom ñëpp muy club yi nga xam ne ñu ngi koy organiser ci école yi comme les club anglais club français club nangam club EVF nangam e mm-hmm. club yooyu bokk na ci li gën a instaurer yenn euh, détails yi ci bopp xale yi parce que ñoom ñëpp ci nañu rëccee pour taxawaalu ci moment li ñu profito profité seeni emploi yow wayjur bi mën nga ko am mën nga xam heure bi muy dugg xam heure bi muy wàcc nga maîtriser lool mais jour bi muy am club naan la maa ngi dem club réunion bi club bi woo nañ ma nangam ak nangam doom yépp loolu la ñuy gëmloo seen yaay yi loolu la ñuy gëmloo seen papa yi nga jàpp ni que ni bu demee ci club ba mu ngay jàng boo e demee doo ko fekk ci club dem na ca business party ba dem na ca leneen wala dem na seeti xale bu góor loolu loolu gën naa garaawati te te club yi te club yi bu njëkk dañ ci daan renforcer club scientifique daan na am man maa ngi fàttaliku club EVF noonu club histoire noonu dégg nga euh, club anglais noonu club français noonu euh, pour rek renforcer élèves yi ñu gën a mën a taxaw mais bu dee loolu moom la ñuy def ali bi nag pour gën a mën a libre mën a gën a toj dëkk bi loolu c'est à revoir. fois du ben du ñaar du ñett du ñett. la ilaha illallah. ba ba ba ba li ñuy wax visite visite visite pédagogique yi ba loolu bokku ci. léegi sëriñ bépp moyen bu nit daan utiliser pour mën a euh, joxe joxe joxe des leçons euh, yu yu yu yoo xamante ni daf lay servir euh, ci sa àdduna yëpp léegi moyen yooyu yëpp transformer nañ ko. def ko des euh, def ko des rencontres yoo xamante ni ay musiba kase lay jur subhanallah moyen bu nit daan utiliser doon def lu positif transformé nañ ko ba mu nekk lay pour sàngee ko pour habiller seen musiba yi nga xamante ni moom la ñuy def subhanallah sax euh, xale bi moom ci yan loxo nga koy bàyyi Ah, yéeme na yéeme na ëpp na ëpp na lool ëpp na ëpp na lool ah yàlla nañu yàlla gindi daal te yàlla dimbali ñu te yàlla bay bàyyi bañ ñoo bàyyi ak suñu bopp waaye doy na waar lool lool daanaka li ma bëggoon a wax ci deuxième point bi sax lépp waxaale nga ko benn yoon donc tey euh, aay yaag addis yaag façon yooyu yëpp yaakaar naa mu ngi ci biir waxtaan wi ku bëgg a déglu mm. ah, tey dégg nga waaw mm. ah, yaakaar naa ni waajur yi waxtaan wii war nañ koo yaatal bu baax xaaj njóogu xaaj maxtaar war ngeen ko yaatal bu baax ba waajur yi jot ko xam li xew seen doom yi ak seen sët yi ñu xam ñu xam bu baax li xew li li ñuy dox ci suuf c'est important ndax dëkk baa ngi bëgg a toj te lii kat bokkul woon ci li ñu xam li li ñu doon dégg di coow loolu xam nañ ko loolu ñëpp xam nañ ko soirée diw ak xew-xewu diw ak waaw loolu xam nañ ko waaye wax dëgg yàlla lii moom téem yii moom man dafa doy waar lool lool lool lool lool lool lool waaw te man li ma ci xaw a jaaxal mooy loolu daal yaa trop de code man code yi moo ma jaaxal code yi nag mooy wane ni ñii ci genre secte la nekk waaw loo xamante ni ku ku bokkul ci ñoom rek doo ko maîtriser kon ma jox la nga jox wax sa dernier kàddu ak tamit ban xalaat nga am ci ci jotaay bi ñu soog a ñu soog a ñaan incha allahu taala santat eh, santat santat yàlla bu baax a baax di gërëmaan hmm. ñëpp eh, di jéggaluwaan mbokk yëpp di wax lépp li nga ni wax nañ ko fi rek muy lu lu xaw so boros kenn eh, lu xaw a ñagas wala bëggoon mu baax dong la xaw nañu sonn daanaka yu ci bari sax Ningko xoolee niñ ko bëgg a waxee waaye nag eh, ndigal moom parfois da nga koy jëfee rek du la gaañ eh, li ñuy tëjee suñu dernier kàddu rek mooy ci waajur yi ñoom la ñuy gën a rosaat ñoom la ñuy gën a waxaat ñu gën a vigilant ñoom la ñuy waxaat ñu gën a eh, gën a am courage nangoo nekk ay responsable jël seeni décision jël seeni matuwaay devant leurs enfants parce que waajur boo bëggee lu yomb rek xale bi mu ngi lay indil benn cent mille ki koy sersi mu ngi koy indil benn dix mille mu ngi dem ñëw di la indil lekk mu ngi lay indil naan parfois soxla boo am mu taxaw ci jéemoo posé wu la question xale bi fan lay jëlee lim yor parce que rek yow li nga bëgg yëpp mu xale baa ngi koy def bu ëllëgee bis bu duggee ci musiba doo ci mucc te loolu lépp ñàkk courage euh, daw responsabilité moom moo koy indi mooy li ci mel ni ni dal xale bi nekk ISEC ak euh, directeur am boobu yow ab xale ñu ni mineur la étant jeune naka nga mën a concevoir naka nga mën a nangoo sa doom nekk ñu luyeel ko appartement moom kese muy dund ci appartement bi te yow mësuloo jël sa tànk dem xooli xale bi ci yan condition lay dund. si sa appartement. bu njëkk loolu moo amoon mais léegi amatul xale bi dem na dakaar mu ngi dund foofu nga bàyyi ko mu nekk ci li mu nekk mu ngi lay yónnee fin du mois quinze mille mu ngi lay yónnee vingt mille mu ngi lay yónnee nangam nangam. xam ci lu mu ne. loolu ci daw responsable bi bokk xale yi am nañ ci part de responsabilité waaye tamit euh, waajur yi am na ci part bu mag a mag a mag boo xamante ni parce que ñoom ñooy bay bayal yenn choses yi ba mu dem ba daf leen di mujjee dépassé. Euh, seen petit parce que xale bi dañuy teel a développé ci moom loo xamante ni euh, nekkul woon sax ci moom. Mm-hmm. mais dañ koy teel a def ci xelam teel koo ko gëmloo ni ko yow star nga sa dundu dafa war a différent ak dundu xale yi nekk fii nii. Mm-hmm. comme ça yow automatiquement pour nga def bêtise day yomb xoolal xale yi jaar ci seen petit boobu yëpp yëpp yëpp yëpp. nañ ko lim ci kaw ba suuf ñi fa mës a jaar ñëpp ñii nii ñu ci kaso bi tëj nañ leen ñii génn nañoo ay ëmb ñii jiiñ nañ leen ëmbal ñu góor ñi jigéen ñi ñu ngi ak ëmb di def ay bêtises di jël di sekk ay baayi jàmbur ak ay yaayi jàmbur parce que mmh. teel nañ leen a gëm loolu nga xamante ni euh, ñoom jàpp nañ ni fii Euh, artiste bu mag a mag ma nekk ñoom ci ñoo ngi ci niveau boobu mhm. donc loolu lépp euh, woy jur yi am nañ ci part de responsabilité ñu bàyyi war xel bu baax li ñuy dugal seen doomi nangoo nekk ay responsable nangoo jël di décisions devant leurs enfants bëgguma nga def lii duma de doo def lii waaye boo waxee sa doom naxtaan la jël we ci tegal la def ay détails ak ay manigansam nga fekk si ko ci la mbëgg bu ëllëgee lu mu mënti nekkit yow doo ci doo ci bu ne ñu ngi jéggalu at sëriñ bu baax te xam ne bu bu rek ñu yemale foofu kàddu yi boo xamante ne amul beneen laaj wala ah man kañ dama lay sant euh, gërëm la ñaanal la yàlla bu baax a baax a baax ndax euh, alhamdulilah min ya rabbi waaw macha allah vraiment musuma musuma njort lu mel nii man rak am na lu ma ci xamoon am na lu ma ci foroon mais nag niveau bi nag wax dëgg yàlla àgguma fi woon donc euh, ñaan yàlla rek subhanahu wa mu doon leen jàmm doon leen xew ndaf yéen it alhamdulilah tey leeral nga lu lu bëri tey moom torche dëgg nga euh, bu ubbi nga dën leer bëtu ñu bëri euh, tabarakallahu le firi nga ñu bëri seeni lett te ragal naa ni waxtaan wi duñ ci jógee inshallah taala dinañ xolaat bu baax a baax exactement fan lañu tek sun tank ñun ñep ngir njuumte baña amati yenn erreur yi baña amati ñu xam bu baax li ñuy def ngir baña sanku baña sankale suñu njabot c'est important ndax tamit mbir mi li tax ñu war cee wax muy ñun ñep le concerné ñun ñëpp muy goor muy jigen muy mag muy ndaw ñep le concerné ku japp ne yow bokkoo ci rek rey nga sa bopp juum nga waaw ku jàpp ne rek yow yow bokkoo ci juum nga gaañ nga sa bopp waaw kon nag alhamdulillah maa ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mi nga xamante ni dara tëwu ko yàlla na sama borom gën la jàppale gën la dimbali gën la dolli xéewal gën la dolli sutura xam naa bu baax yan condition nga nga nga nga nga nga nga nga nga ma wuyoo yan condition nga ma tontoo xam naa lépp waaye nag ah lii tamit day day liggéey bu am solo boo xamante ni ëppoon naa sàggane ñun ñii fi mu ne nii ma fi mu ne nii ñoo ngi ci ñoo ngi ci presque deux heures du matin <laughs> te suba jour ouvrable la waaye man xam naa xam naa bu baax li may def xam naa prix bi parce que mbir yi li ci mën a yàqu kenn xamul nu mu toll mm. te doowatul ñun ñii ñoo ci gën a gaañu. kon nak alhamdulilahi rabbil alamin sante la rek geureum la ñaanal la yàlla yàlla mi nga xamanteni dara tëwu yàlla na sama borom yéwénal sey mbir te doli la jàmm doli la xewul doli la sutura doli la teranga barke alquran karim barke barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ma ngi lay geureum di sante xamna xam naa bala ñuy àggal rek ñu jël haj maxtaar mu mu mu sànni ñaari kàddu ñu soog ñu soog a ñaan incha allah jërëjëf xaaj Massa jazakumullahu xeyran kon nuyul ma nuyul ma mbokk yëpp ziyaaral ma leen ngir jëm yàlla jaay seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam baax na incha allah waaw kon mbokk yi yéen ñëpp yaakaar naa dégg ngeen li xew wax nañ leen lépp li ñu xalaat ak niñ ko xalaatee tabaarakallahu xaaj Ousmane xaaj Maxtaar la ñuy jël rek moo doon woote sànq euh, euh, ñoo ngi koy woo ci Sembène incha allah euh, suñu àggalee rek mën a ñaan ñu xam ne ah liggéey bi macha allah du jeex mukk xaa xaaj Maxtaar wala Ousmane la waaw bismillah yow la yow la déglu. jërëjëf. di la di la di la di la ndokkale macha allah di la di la ñaanal yàlla bu baax yàlla yàlla la gën a dëgëral sa sa sa taxawaay. amiin dañ bokk macha allah. Maxtaar Maxtaar Maxtaar. مختار الو كي با كي بي باخول دي الو وا حاج وا دي دي وا لي دا فاي دا فاي ملني ba bismillah waaw te waaw moo tax xam naa du ma sax ndax li li li sama mbokk moom wax naa damay dagg sax bismillah sama mbokk moom wax di di di ah, waaw oh fii réseau bi la waaw réseau bi la macha allah xam naa ni moo ngoog xaaj Maxtaar moo doon jéem a dugg mais réseau bi neexul foofu te dafay dagg dagg dagg bu bu jéggi day waar. waaw bisimilah. waaw. waaw. te te te yaakaar naa ni waxtaan bi ci ëpp yi la ñuy lii. ñu ñoo koy déglu am na quelque suñu waajur yu ci nekk. ñun jeunes yi nag lii ñun ñoo koy def suñ ko defee tamit am nañ ñu nekkal ñoo xam ne nii ñun ak ñoom ñoo dëkk ñooy nekk suba ak ngoon. Hmm. ñoom ñoo koy def lenn li lu ñu dund lu ñu dund la peut-être c'était dans le passé boo xam ne nii lu la. léegi nañ ñu koy dund nii léegi moo ci mujj léegi parce que tey ku nekk xam na ni am na ay match Ligue des champions yu am ay enjeux yoo xam ne amoon na donc li fi Pape wax nii yëpp yëpp amu ci dara loo xam ne nii kenn dina ko dégg naan nii nii naana xanaa da bëgg rek def lu la neex wala nga wax lu la neex mënoo koo ñàkk ba ñu gis mën na am nag ci parents yi duñ ko xam parce que parents yi façon bi ko façon bi ko jeunesse bi defee loolu ñoom mën ñu koo xalaat ñaari mbir rek laay wax daal di daal di bàyyi noonu parce que damaa bëgg waxtaan yi di maa ngi ñaan waxtaan yi ñu ñu gën ko yaatalaat su ko defee ñëpp gën ci mën ñëpp mën gën ci participer daal côté côté communication bi tamit ñu xool nan la ñuy mën a def ba waxtaan bi nekk waxtaan boo xam ne nii dina jël euh, ali boo xam ne ali télévision nationale lay doon su parce que waxuma daal mais dégâts yi xew ci réew mi nga xam ne moo ci am rek waroon naa tax euh, ñu exploité loolu dafa am ñaari mbir si ñaar yoo xam ne damay dama ci def point d' interrogation après yeneen waxtaan yi ci bés ñu ñu ñu waxtaan ci kenn ku ne tamit def ci gëstu. Mm-hmm. waaw bi ci njëkk mooy wàllu fuite li ñuy wax fuite. wàllu. fuite fuite. fuite. waaw. ci biir yooyu noonu. ah. examen mooy fuite mooy bu ñu bëgg a def examen ñu jékki-jékki ñu fuite am na. waaw des sax day tax ñu annulé examen yooyu noonu. waaw lan moo tax fuite léegi accès ak yomb-yomb boo xam ne nii même même examen yi gën a yi ay examen yi ku lu mel ni ay bac ay BFM at yi mujj yëpp a day am ay problème fuite. waaw. war nañoo laaj lu tax loolu. Mm-hmm. waaw loolu point d'interrogation moo xam ne la bëgg naa ñu waxtaan ci te lii li fi Pape Massa wax nii yëpp loolu dafa bokk ci euh, mbir yi nga xam ne nii day tax fuite di am. Mm-hmm. waaw beneen bi. Mm-hmm. mm-hmm. te xam naa ni tey moom xaaj Maxtaar réseau bi tabaarkàlla tabaarkàlla tabaarkàlla réseau réseau bi réseau bi dafa desee neex moom dëgg yàlla waaw waaw bismillah àggaleel waaw àggaleel loolu benn mbir la boo xam ne bëgg naa ñu ñu def ci gëstu bu yàlla defee di nga defaat benn jotaay kenn ku nekk indi ci xalaat bi mu ci am ak connaissance comme ni ma waxee parce que mbir ñun ñoo ko ñun soit ñun ñoo ko def de par expérience wala gis nañ ñoo xam ne dund nañ ko te kenn demu ci ñu ngi fii ay jeunes ñun ñëpp ba tey. benn mhm. topp mooy Massa wax na te loolu lu am la si gis nga seen tey bëri na ci jeunes yoo xam ne nii seen wéju yi leen fekkoon ci yenn mili mili yi wala ñu gis leen lu ñuy def soit par seen téléphone wala dara loolu ñoom duñ ko mën a gëm dañuy yaakaar dañuy gént wala leen la <laughs> te ñu ngi koy def nii di xëy di la xool di dem di dikk. di waaw waaw moom dafa ne su ma su ma xuusee nii dañuy dañuy dañuy dañuy kii te waxtaan bi tey dafa am njëriñ te bëgg nañ gars yi kii ci te dañoo mooy mooy loolu wax xaw ma après je sais pas qu'est-ce que comment on va s'organiser pour fexe mu yaatu ba nga xam day nekk benn thème national comme nit ñi waxtaan coronavirus bi wala leneen ak leneen ñu fexe une majeure partie de la jeunesse message bi jàll ci ñoom te je pense que jaar na ko. jar na ko parce que ku gis luy xew ci ku gis luy xew ci dëkk bi fi mu toll nii xam nga ni jot jot nañu waxtaanee ko. waaw ah, jot na de. waaw ah, te te te te te sëriñ sànq Paa Massa mu ngi koy wax mu ni foofu ñu daje noonu. Mhm. foofu noonu moo monde la seen rencontre seen rencontre yooyu. Mhm. moo xam boîte la moo xam ci seen auberge yi la moo xam fu mu mënti doon dañ leen di infiltrer. c'est-à-dire ndaje mu ci am ndaje ndaje bu ci am am na koo xam ne nii. am na benn ponkul mu euh, góor jigéen bu nekk ci bu nekk ci ginnaawam. Mm-hmm. waaw kooku tey jii ci milieu bi su dina xool bu xoolee ni dina ci kenn koo xam ne nii kii dina am lenn benn affaire bu mu ko gëmloo ci faiblesse am boobu lay jaar ba mën koo wàllu góor jigéen. Mm-hmm. lesbienne yi noonu lay demee. parce que rencontre yi su amee nekkul ñëpp ci sànni seen bopp tey ji am ñoo xam ne dañuy dem juste pour découvrir mhm. am ñoo xam dañuy dem mais bokkuñu ci bokkuñu ci mooy ñoom dem nañu amuñu soit gel nañu amuñu copie wala amuñu femme léegi bu ñu demee pour pour waa kooku taxaw moom nga xam dafa ñëw moom ci mbirum moom xam na kan lay choisir am na critères yu mu soxla xam na yow man façon parce que parce que dañu waxtaan ak yow abordé la xam na si ban buntu loolu mën a jaar. Mm-hmm. ah mais tey xam nga kenn kenn waxu ko mais mais centre de formation bu mag bi nekk ci ci dëkk bi ka fa nekkoon di jàpp xale yi di leen def lu mu leen def mais dafa am ay affaire yu ñu doon gëmlu mais kenn sooy wu ci wax nañ ko ñaari fan ñett ñun centre bi dàq na ko après te bu ñu ko dàqee tamit mooy centre bi wax dàq mais teewul duñ koy utilisé ko ci leneen. Mm-hmm. léegi mooy li nga doon wax rek léegi tey mu ko doon defal ñu ñu découvrir leen loolu xam na leen mais ñu waxul nag ñu wécc nag tey jii doon ay professionnels. ñooñu traumatisme boobu nekk ci ñoom est-ce que dañuy bàyyi loolu. mooy tey da ngay dem ba da ngay dem ba am sa soxna sax dootoo mën a dootoo mën a nekk ak moom. ci préfère di ko di ko fa bàyyi di dem def leneen. waaw donc mu ngi noonu daal li fi Pape Moussa wax yëpp dafa dafa macha allah dafa kii te li mooy li ma wax rek daa daa daa bëgg xam ne li ñuy wax bu baax. parce que da nga koy dund rek gis ko ko dund. ñeen di nekk suba guddi gu wéy ngoon. donc dañuy dañuy dañoo bëggoon rek kontaan ci waxtaan wi vraiment parce que dañ ci sànni suñu bopp waaw parce que man mii tey jii am na loo xam sax peut être léegi yàlla dimbal nañu bi la xamee ñu ngi góorgóor ci yéen yi di ko bàyyi mais tey day am ay mbir yoo xam ni suñu way ju avant ku leen ku leen yeewoon ni leen maxumaay day def lii danaan lii mënu ne te da nga koy def ni di dikk di xool waaw bu njëkk ba sigaret sax soo ko doon tux mënoo ko nëbb sigaret rek boo ko doon tux mënoo ko nëbb da lay booy waaw léegi da ngay def yëpp da ngay dux si nga di gaz di mandi te kenn te nit mënu ko xam ci yow waaw donc mu ngi mu ngi mu ngi noonu ñu ñu ñu yemale foofu kàddu yi. macha allah di suñu pam dooloo li suñu mbokk pam masa wax di espérer daal que ni dinañ amaat yeneen jotaay incha allah ñu gitu. def ci tamit yitte ba àdduna bi yëpp mën ko jot. waaw waaw ñu ngi jaar lépp mën ko jot waaw parce que. dafa bokk ci li tax ñoom seen combat bi xaw a xaw a doy waa mooy dañ leen a bàyyi ak terrain bi parce que ñun gëmloo lii moo mën a ne te bu leen takkal lu loolu tamit waaw di wax ni yomb na mais tamit tant que nekkul ci seen milieu yooyu tant que dundoo loo gëm ni la lii mooy àdduna lii mooy monde bi ah, pas nekkul benn combat boo xam ne dañ dafa dafa laa jiite.

لرجف jërëjëf macha allah macha allah am solo am solo lool intervention bi Haj Makhtar jazakumullahu xeyran donc euh, donc mbokk yi yëf yaa ngoog euh, point bi Haj Makhtar tëjee rek moo ci gën am solo mooy ne euh, benn scandale ben benn scandale mooy coow benn jigéen wax na ni xam na copinam une amie à elle bu qui ci problème mu wax nañ fi lu scandale lañ am mais y a des centaines d'autres problèmes yo xamanteni ni ko wala porté une plainte wala le bi mais amna yeneen viol amna yeneen mbir yu loolu la Makhtar di c'est important <laughs> c'est important donc nak alhamdulilah ñogi sant vous bu baax mbokk yi tey jii waxtaan wu metti la mais léeg-léeg tamit daf ci baax euh, daf ci baax loolu ñu ñu ñu ñu traité yëf yi parce que euh, euh, infirmier duy duy faj sa góom di ko li di ci def alcool da nga naan dafa soxor chirurgien duy xotti sa biir da nga naan dafa soxor moo tax sax da lay anesthésier ba ngay nelaw parce que xam na ni dooy xool doo accepter mu jël scalpel ah. bisturi di di di xotti sa biir doo ko nangu jamais loo ko <laughs> wóolu wóolu doo ko nangu moo tax da ngay préféré moom day préféré eh, anesthésier la nga nelaw mu mu fekk la fa nga tëdd def la lim la war a defal yépp defal la bokk lim la war a defal yépp soo yeewoo daal di gis ni am na lu la doon metti lu garaaw dindi na ko am na lu doon dis ceew woyof na waaw kay nga tranquille mais du ko doon def nii nga koy gis doo ko nangu jamais ok loolu la mbir mi noonu la mel donc nag léeg-léeg tamit il faut que ñu am courage yu ñëw taxaw waajur yi tamit xaaj euh, ma sa wax na ko te kii wax nii jeune la doo amee vingt vingt deux ans vingt trois ans ci lay yem waaye dégg ngeen li mu wax nee na il faut que ñu sincère il faut que ñu bàyyi hypocrisie bi parce que bari na ñoo xamante ni seen doom yaa ngi dem ci tiim yi c'est parce que dañoo gis waajur yi di def ay lu kenn xamul ba yow xam nga dooy def yenn ndëngte yi sa doom gis la. sa doom tamit day am fit def lu ko neex parce que xam ne mënoo ko yedd sa sa doom du ñëwee di la indi xaalis di la jox nga xam ne lii liggéey ko papa may ko ko nijaay may ko nga xam ne kii day carte waaye da ngay bàyyi ci biir di jël cinq mille di di bokk muy def di def di def bis nag dina def loo xamante ni la cinq mille yi nga doon jël di ci dem natt ak di def di ci di ko lekk di ko jënde ay tusi loolu yëpp di nga ko dajaloo fayee ko ay bor c'est automatique wala boog sa doom dem kaso wala sa der yàqu

su su demee sax ba troisième wala terminal wala mu wala mu premier jour bi muy su njëkk a bëgg mooy gis nit bëgg ko suy ñibbisi ci kër gi doo koy xool di ko xam xaw ma ndax xam ngeen li may wax wala déet premier coup de foudre wala premier sa sentiment d'amour sa doom bu jigéen du ko amee ci biti nga xam ne su ko dund suy si ci kër gi du waaxoo ñëw toog wala mu waaxu rek dem toog nee rek yow yaay ji danga koy xam te li ci doo koy laaj mu ne la nangam ak nangam nga xam waaw léegi ku mën a détecter loolu sa doom war ngaa mën a détecter ne day tux wala day tux yàmba wala day naan sàngara waaye dañuy xam lépp daal ci nëbb nëppal su ko defee mag ñi nee nañu yëf yi lenn rek moo fi mën a nekk sa doom da koy dóor mu jooy wala su ëllëgee moom mu jooy loola. yàlla nañu yàlla boole dimbali yàlla nañu yàlla boole jàppale je crois que euh, war nañoo xoolaat yu bëree bëri bëri état bi aussi euh, protéger jeunesse bi. loolu c'est le c'est c'est c'est l'obligation de l'État euh, de protéger la jeunesse notre jeunesse contre l'alcool contre yu bëree bëree bëree bëri waaw gars yi tamit ñi nekk ci presse beeg ci télé yeeg ci ki ñu yor média yi nañu gën a dellu bàyyi xel ah ñoo ngi jàpp nañ ni rëcc nañu parce que ils ont de l'argent jàpp nañ ni seeni doom rëcc nañu parce que yóbbu nañ leen bitim réew ñoo nga Amérique di jàng ñoo nga France di jàng ñoo nga Canada di jàng mais déedéet rëccaguñu de <laughs> rëccaguñu de waaw te loo def doomu jàmbur nag ah doo wattul ñu fay la ko de waaw te li ci yëpp dañuy bàyyi ba nga dem ba dootoo leen mën a protéger nag fitna yi dikk ay jël rek ay doom yi baadoo la jiital leen ñuy fecc ak di taxawaaloog di lambar lambari di leen wane ñuy ñuy doye di di ñàkk fayda di jël ay turu nit ñu baax nit ñu sell ay xaadim ak ay muhammad ak ay maam jaaraak ah, ay maam cernook tur yu baax yu sell ay nitu yàlla ah teg leen ci kanam hmm? ñu war a jël ñoom muhammadul mujtaba jël maam jaara ngom soxna eh, eh, eh, xadi dramé ah jigéen ñooñu lañu waroon jël jigéen ñi ci daara maam jaara ña nekk Fass Touré ña nekk kokki dégg nga ña nekk ca jaamal ña nekk Medina Gunaas

waaw ah, mo mo ngoog yu demee noonu euh, borom kër yi aussi nañu dellu ginnaaw <laughs> nañu dellu ginnaaw parce que euh, li ñu wax yëpp chez diw chez diw masa tudd na leen li ci des ay borom kër xaalis rek la ñuy bëgg yow ay jeunes dañuy ñëw ne la dañoo bëgg a def euh, benn soirée d'intégration suñu xarit ñoo fi ñëw yaasa la ñuy togg nangam nangam te yow xam nga li xew xam nga ni ñii xale yu góor yoo xamante ni kenn amu ci 30 ans. ñëpp ñëw indi seen i oto solu am seen sàngara su doy am seen yàmbaar yàmbaa ju doy am seen seen wine bu doy am seen i fowukaay yu doy jigéen ñi futteeku xam nga ni foofu place boobu ay caaxaan rek moo fay ne wallahi lu ñu fa def ci lu ba ci bàkkaar lu ñu fa def ci moy yow mi leen luye kër gi danga cay am loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax waaw ma ngoog yëf yaa ngoog gars yi daal xam na lépp li xew xam na lépp li xew gis nga corona baa ngi tiital ñu jabet a ngi nii tiital ñu tension ngi nii tiital ñu feebar yu bon yi yëpp a ngi fii tiital ñu di rey ay ka xaw ma lan ak lan ak lan ak lan waaye lii tamit dafa bokk ci feebar yu réew mi waaw duñ ko bàyyiwul duñ ci bàyyiwul xel nag ah, musiba dina ki yéen ñi koy déglu maa ngi leen di ñaan ñi ci nga xamante ni am nañ accès ci seeni sëriñ nan leen wax lii sëriñ si yëguñu lii ku ci déglu waxtaan wi soo ziyaaree sa sëriñ na nga ko ko wax soo toogee ak sa pàppa na ko ko wax.

waaw donc nag kilifa yi war nañ war nañ yëg li xew nañ ko xam nañ ko nañ ko jébaane nañ ko waxtaane ci gàmm yi nañ ko waxtaane ci ci ziar yi xoolal jotaay yu mag yi mu yi nu mujjee am ci sunu réew mi lu tax duñ ci profité jël benn cinq minutes wax ak le ministre de l'intérieur wax ak le ministre de la jeunesse wax ak ñoom wax leen ne leen am na ay ay ay phénomènes yuy gangrène jeunesse bi mais nañ ci jël ay ay dispositions parce que am na loo xamante ni nguur rek ko mën dindi. te tere ñu bayyi par force nga am doole pour mën a mm, fu fuddu ndëgg ndiggu ña ngay tere loolu nguur moo ko am waaw gars yi nag dañoo war a profité wàññi gërëmaate bi tuuti te day wax li nga xamante ni day lor dëkk bi di gaañ sunu jeunesse bi c'est très très très important waaw nañ profito ci podium yu mel noonu lu mel ni gàmmu lu mel ni ziyaar yi lu mel ni màggal yi lu mel ni xew-xew yi mais di leen exposer affaire bi Ah, waxtaan ak ñi nga xamante ni xam nañ li xew xam nga ni ku mel ne masam yi sëriñ bëri war nañ koo déglu mu wax leen lépp li ci nekk ñu mën cee def seen i xutba def ci seen i waxtaan def def ci ay conférence ngeen yaakaar ne team bii nii team jarul woon ñu def ci ay conférence partout dans le Sénégal leeral ko nit ñi te ñoo ngi foofu Thiès ñoo nga Dakar ñoo nga Kaolack ñoo nga fépp léeg-léeg sax ñu may wallahi léeg-léeg ñu may leen seen seen piscine parti yooyu parti yooyu ñu teg ko fii ci télé yi TFM da koy teg <laughs> dañ koy teg bi ñu nekkee RDV dañ ko doon teg dañ koy teg te la ca nekk kenn musul kenn mus ko su ko defee nag la ñuy teg ci télé bi ak la ñuy def ci seeni chaîne YouTube du bokk seeni YouTube ba la fa nekk moom pornographie moom su kenn du wax sax déguisé loolu su loolu Jamaïque la am ak ak Trinité ak Tobago dëkk yooyu ñooy def loolu pecc moo xamante ni daanaka acte sexuel kese la. futteeku góor ñi jigéen ñi ñëpp di di tëb di dal di def lu kenn mësta gis loolu moo ngi fii ci senegal waaw euh, xa gars yi xam na nañu baax lañuy wax waaw kon nag mun euh, mënuñoo gën a guddal deux heures jot na fii ci ñun waaye ah <laughs> wax ba deux heures ah nit ñi gindeeku ci moo gën ah wax dëgg yàlla ah, tëdd walla topp ba kenn gaa yi sànku ndaxte jii wóor na ma ni ku déglu waxtaan wi. di nga xam ni Sénégal amna lu fi nek lo xamanteni gaay ñong koy sagane waye duñu bayé bàyyee réew mi dina toj kon carte gi nañ ci protéger sunu jeunesse bi les teams nañ leen nañ ci protéger sunu jeunesse bi wóor ma nak ne suñ leen djébané dinañ wut benen tour waye su boba tamit rek ñu fexe découvrir leen encore djébané wat leen ñi ci sanko bari na de man amna na lu ma ci xam de billahi laa la wax waaw sàcc ay oto def ci ay braqué mais lu nekk jël seeni tissu yaay jaay seen yaay teggi nattu ñu natt natt sept cent cinquante mille ñu jël ko yóbbu ko sàcc oto jàmbur dawal ko mu def accident rey nit mais lu nekk am na ci <laughs> lu nekk am na ci waaw waaye nag ñun dañoo mën a nës nësal di nëb nëbal waaw ba muy mbir yi toj ku nekk nag taxaw di yërëmtalu waaw ko defee loolu yëf yaa ngi suñ ko toppee fi la ñuy fanaan yàlla nañu yàlla boole dimbali wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yàlla nañu yàlla boole gindi bu suba su neexee yàlla incha allah dinañ def live spécial ci aaya alquran boobu yowmal qiyaama yàlla day wax jahannama ne ko ndax fees nga halim tala ati ndax fees nga jahannama naan ko hal mim mazid ndax am na loo mu mën a dolli ci ñu mu mën a gën a warax gën leen a lakk ci biir safara waaw loolu lañ bëgg a waxtaane ak ban dégg-dégg ci wàllu tasawuf ak wàllu xaqiqa lañ ci mën a am aaya boobu halim talati hal mim mazid moom la ñuy suba incha allah ñu wane ci daal dox ci yàlla ak gaa yi niñ gaawee doyal gaawee pare gaaw wax ni àgg nañu gaaw wax ni yëf yi jeex na te fekk commencé guñu tegaguñ sax ca yoon wa loolu la ñu war waxtaane suba waaye nañu jaar ci aaya boobu halim talaati hal mim mazid wasalaamualeykum wa rahmatullah alhamdulilah jaa ngeen jëf